mbokki xarit yi ci ànd bi ak euh, teewlu seen chaîne mbégte lay nekk saa su ne dimanche ñu dellu siwaat ci rendez-vous bi nga xam la rédaction moo leen koy proposé muy votre mag sport muy sport euh, sur 7 sport sur 7 nag trio bi moom moo leen koy euh, présenté Aladji Grégoire jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu ma nga ci arène nationale vous l'avez compris ak journée bu am solo bi nga xamante ne la structure Gaston Production moom moo ko doon proposé tey à tous les amateurs de notre sport euh, national muy diggante Sa Thiès ak Reug Reug dinañ si ñëw bu ci kanamee largement mais balaay loolu Babou mi ngi fi l'international nationale il vient nag après Mouhamed Ndour Babou may lay nuyu di di la di la fay bu baax a baax di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo ñun duñu seetaan comme mm-hmm. euh, tous les dimanches ñëwaat ci seen magazine yi nga xamante ñoom ñoo ko tàmm seen bopp di sport sur 7 ñu ci waxtaan lépp loo xamante moo jëm ci wàllum tàggat yaram mu mel tey Adja tey mënu bi xaw na riche tey. absolument alors ce soir euh, nous allons revenir ni ma ko waxee largement. sur le combat qui a opposé Thiès à Reug Reug Reug doomu Thiaroye bi euh, dinañ si ñëwaat décrypter ko xool aussi acte d'incivisme bu notoire bi nga xamante ne dafa mel ni dafa tàmbali sax foofu ci arène national te du dëgg du yoon structure la boo xamante ne dañ ko jagleel jeunesse Sénégal dañ ko jagleel ñi nga xamante ne dañu bëgg sport mais ñu gis ay actes yoo xamante ne c'est vraiment regrettable waaye dinañu ñëwaat surtout ci ay jeunes maanaam d'abord la sélection des moins de 17 ans jamono ji mi ngi wàcc am na sax benn rencontre bu mu disputé euh, face à d'autres lionceaux indomptables c'était hier dinañ si dellu siwaat ak waajtaay bi ndax double confrontation la dinañu ñëwaat ci qualification demi-finale ay lionceaux jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu ñu ngi ca Égypte les protégés de Malik euh, Daf et puis demain la rencontre qui va opposer le Sénégal à la Tunisie muy première demi-finale de cette CAN des moins de vingt ans mais aujourd'hui la part belle dañ koy jagleel jigéen ñi ñi ngi ci weeru mars ñu am mbégte ak contenté lool dalal fi ki nga xamante ne moom mooy tàggat gayndeeg Sénégal dañu gisoon Sénégal dafa am fu mu toll ci wàllu football rawatina footballu ay jéego yu am solo faam ñu toog nag waxtaane ko le quel est le secret mais surtout les perspectives dinañ ko ndar keppee nag ak li nga xamante ne moom moo indi woon coow polémique ndax jar na ko waaw am déet vote bu sélectionneur national Aliou Cissé mu indi polémique the best tey loolu la ñu nar a ndar dinañ ñëwaat tamit ci basketball représentant du Sénégal ci Basketball Africa League dafay démarrer le 11 incha allah fële ca Dakar Arena muy AS Douane mi ngi waaj d'ailleurs demain dañuy organiser li nga xamante ne mooy benn open press loolu yëpp dinañ ci ñëwaat ci waajtaal yi mais balaay loolu damay am mbégte ak contenté dalal fi Mame Moussa Cissé euh, technicien qu'on ne présente plus mais surtout muy tàggat ñi nga xamante ne ñoom ñooy les coéquipières de Safiatou Sagna coach maa ngi lay nuyu di rafetlu ni ñu nangulee sunu invitation. Ah, Adja maa ngi lay fay. Mhm. di eh, nuyu ñi ñuy seet ak eh, di nangu invitation bi parce que déjà mbégte la. Mhm. mais devoir la. parce que aussi bu ñu la joxee li ñëpp moom boo si liggéeyee dafay laaj benn moment aussi nga waxtaan ak nit ñi pour que ñoom ñu xam si li nga nekk lan la. pour que ku si ne mun si apporter li nga xam ni moo ko moom parce que c'est une cause nationale et mais kontaan nag ñëwaat fii parce que du du du c'est première fois et puis yow aussi euh, nga bokk si ñu jàppale football féminin bi ndax dama koy fàttali ñoo nga plusieurs fois fekk ñu euh, géréew Euh, def reportage ci xale yi te loolu je pense que am na jeexital bu rëy bu mu def ci euh, résultat yi nga xam ne ñu ngi ko tàmbali gis ñu lay remercier donc mun ñu ko woon bañ euh, c'est dans notre rôle mais c'est aussi un grand plaisir surtout ñu bokk kook ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci plateau bi tey merci beaucoup merci beaucoup loolu moom mooy suñu credo faire la promotion du sport sénégalais te duñu si Moussa Diop donc yaa ngi ak suñu consultant tey maison dinañu waxtaan waxtaan ci management du football féminin ñu ngi ci weeru mars prétexte la ñu nekk ak benn ci suñuy consultant muy Papa Mar Mbodj Papa Mar may lay nuyu di la dala jam sa plateau. Euh, jërëjëf Adja euh, maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu baabu di nuyu sama frère Mame Moussa. Mhm. Mame di wax ne euh, dañu am mbégte vraiment partagé ak moom plateau. parce que te nekk na technicien boo xam ne. depuis presque vingt ans man maa ngi koy xool muy liggéey dans la région de Thiès di liggéey Sénégal liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib la te dégg naa temps yi ñuy wax naan yenn coach yi ay produits fabriqués au Sénégal mais yàgg nañu am ay bons produits mais peut-être que ñi nga xam ne ñoo yore centre de décision wala pouvoir de décision seen xel mi ngi soog a ubbeeku jëm ci produit yi nga xamante ne ñoom la ñuy former fii ci Sénégal te Mame Moussa mii bokk ci parce que il a fait toute l' école sénégalaise c' est un produit de l' école donc euh, di kontaan pour mën a ñëw ñu échanger loo xamante ne dina jëmale sport ak euh, catégorie nga fi tudd yëpp ñu ñuy def ba mu gën a jëm kanam parce que Sénégal li may wax rek dañu toll fii mu ne nii touchons du bois l'âge d'or du football sénégalais ñu ngi ci digg bi léegi nag naka lañuy ñuy war a mun def ba mun ko téye mu ñoŋ ni mu war a ñoŋee am impact ak retombées yi ñu ci waraat a am yëpp xam naa loolu lu am solo la te c'est l'occasion mu féliciter leen parce que lii ngeen di def nii mooy jox visibilité li nga xamante ne ñu ngi koy liggéey. Mm-hmm. te bu dul woon yéen population yi parce que tamit sport bi moom yëpp service public la. Mm-hmm. waaw su yéen ñi nga xam ne yéenay tax mu mën a àgg ci askan wi tamit vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf Papa Mara Mbodj qu'on ne présente plus xam-xamam màcc ci wàllu management du sport ndax am na lu am mais on ni mu ko waxee dañu bugg en plus en plus nag loolu ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu management parce que ñi ngi koy wax di ko waxat sport du ci terrain bi rek donc avant nag avant boobu tey moom la ñuy gën a waxtaanee pour conforter ko ndax cette fois-ci jigéen ñi am na fu ñu toll et on espère que dinañu yéegaat dinañ franchir beneen euh, palier mais balaa ñuy yegg foofu baabu mhm. faw ñu ñëwaat tey ci journée bu am solo ci wàllu làmb mu dox ko doon wax euh, mi ngi noonu combat bi. Mhm. ñaari combat la on dirait. Mhm. chute bu njëkk bi on parle de chute bu njëkk ak chute boo xamante ne amul. Mhm. ak chute bi nga xamante ne moom mu mujj. penda nag chute bu njëkk bi moom la ñu moo nekk nii baabu. voilà euh, chute bu njëkk bi moo nekk nii soxna Adja parce que combat bi dafa nekk combat boo xamante ne dafa jaraloon ñaari mbër yi. parce que mën nañu jàpp ñoom ñaar ñoo xaw tolloo palmarès parce que ñoom ñaar ku si nekk am na 16 combats ku ci nekk si am na 14 victoires euh, Sa Thiès am 2 défaites ki nga xamante nag moo di rëg-rëg am 2 combats yoo xamante ne sans sans verdict la te ñoom ñaar dañoo am seen tànk dañoo même seen tànk mën nañu jàpp ne ajaat benn tànk mu ngi fi nga xamante mooy cercle VIP yi parce que combat bi moo suñu yóbbu ki nga ku si daan rek mënoon na yóbbu fi nga xamante mooy euh, classe mhm. moo am euh, euh, ba li nga xamante doon dànkaafu CNG arrêté li nga xamante ni sax moo jëm ci wàllum face à yi mhm. mais combat bi nag Adja tey bu ñu ñëwee tey vraiment stade feesoon na del del del ñu wax ñi nga xamante moo di les deux ñu jóge seen kër di ñëw si stade ñi nga xamante ñoo di force de l'ordre yi parce que ñoom ñoo leen a ba ñëpp fi nga xamante moo di stade bi ñëw nañu avant combat bi gars yi maanaam gars yi bàkku nañ fecce nañ fi nga xamante moo di si si ñu ne forme ki nga après nag bi ñu ba 20 heures 20 mu tegaleen maanaam ay maanaam fukki minutes ak juróom-ñett maanaam 20 heures 17 minutes ci lañ sëgg li nga xamante moo di euh, bëre bi bëri nañ def nañ maanaam round d'observation ay une minute gars yi xoolante nañ après nag Sa Thiès ba defee ay ñaanam ci def ñaanam ci la ëttali ki nga xamante ne mooy euh, moo di Reug Reug mhm. varaat ñu dóorante dóorante dóorante dóorante yu yu xaw a dal na nag Sa Thiès am na ñamal na ki nga xamante moo Reug Reug ay ay dóor ba Reug Reug xaw na tërëf sax mhm. ba dellu ginnaaw xamante ne moo di rëq-rëq yi. Euh, mhm. xam suñu zone bi moo temps moo xaw maanaam euh, coupure yi moo fi moo fi jaar léegi mais incha allah dinañ ko continuer léegi li nga xamante moo di seen mag bi. Mhm. voilà Adja bu ñu bëree li ma la wax sànq rek Sa ñam nag ki nga xamante moo di rëg-rëg ba a maanaam dafa dellu ginnaaw. rëpp ki nga xamante moo di rëg-rëg rëg-rëg nag image yi nag moo nekk nii

malgré coow bari na après gis bi combat bi jeex kii di Balla Gaye Balla Gaye ñëw na. Mhm. bi bi bi réer bi daanee Sa Thiès si géew bi. du wax arbitre ne premier chute bi ki nga xamante mooy rakam daan mais li ñu ci mën di jàpp Adja nii nii nii comme dañu faral di wax ne arbitre c'est le du terrain. absolument yëkkati na loxo saa Reug Reug moo daan mais boo xoolee image yi peut ki nga xamante mooy Sa Thiès war na bind recours jébbal ka ñi nga xamante ñoo di CNG ñi nga xamante ñooy àtte te bu ñu àtte jàpp naan li nga xamante moo di ndam ni dina dem ci kër ki nga xamante ne mooy Sa donc euh, lamb ji deux séquences la ni leen ko baabu expliqué première bi mooy image yi nga xamante ne moom mooy illustré wu nii ci seen écran moom la leen Penda di proposé muy euh, première chute bi ñu wax parce que bi ñu jógee fii arbitre bi daf leen owaat bi mu leen owaatee nag ñu bëre effectivement rëg-rëg daan na chute bu leer aussi ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès mu nekkoon journée bu ñu doon xaar ndax ni ñu koy waxee combat jànq la mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk même nombre de combat nga def mhm. bu ñëw ñëw na si léegi ku ci nekk quatorze victoire nga am kee am ñaari défaite rëg-rëg mësul dégg mu ñal depuis qu'il a entamé sa carrière jusqu'à présent mu dajee nag aussi koo xamante ne ñu bëri dañu gis ne beneen combat dafa dellu siwaat diggante Double Less di papay Sa ak Papa di kilifa di waajur ci ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg ñu gis ne waa yi ñëw nañ supporter seen doom waa Géejawaay aussi ñëw nañ euh, mu am ambiance mais coach balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy combat bi damay dellu siwaat ci acte incivisme bi ñu gis parce que benn moment gis nañ léegi jeunes yi lu ñu wax ñu dajji ay chaise parce que dafa am ay chaise yu ñu fa def mais ak euh, ngelaw bi ak euh, espace bi ñu ko def ko dafay euh, dafay chaise yi dañuy yàqu cest di dire bi nga xamante ne support bi la donc bu ñu xëcc ko bu ñu ko xëccee dafa yomb mm. chaise yooyu nag moom lañuy ñuy jour bi euh, ñu dara jaale ko le patron du sport sénégalais ça pose encore problème par rapport au comportement des de des sénégalais surtout surtout des en fait duñ ne jeunes sax mais du sénégalais lambda ça pose problème. waaw sport de euh, ak parce que sport moom euh, pour dajale nit ñi la. Mm. mu am nag ñaar ñu jongante wala ñaari équipe yu jongante. faw mu am kenn ku gagné. Mhm. donc booy dugg si sport moom da ngay nangu ni bis di nga gagné bis daañu la gagné. Mhm. loolu nañu wax fair play loolu nañu wax fair play ça veut boo gagné nit ki nga am humilité bañ ko wan ni man ak Pape Mbodj ñu ñoo ki daan naa ko mais dama koy respecté parce que su nanguwul ma bëreek moom du ma du ma gagné. Mhm. pour que ma gagné il faut que ma am adversaire mm -hmm. donc je respecte l'adversaire par rapport à ça moo tax dañuy bañ sax boo gagné nga nga wane ko d'une certaine manière mais boo ñàkkee aussi nga xam ni ah ñàkk moo ñëw parce que aussi on ne peut pas toujours gagner amul amul ci benn sport boo xam ni nit ki day gagner tout le temps tout le temps tout le temps tout donc il faut que ñu ñu dellu si éduquer euh, la population et puis ñi nga xam ni ñu ngi def loolu il faut il faut que les gens parce que am na dëkk yoo xam ni tey boo demee Angleterre Pape dina leen ko wax affaire hooliganisme amoon na fa. bu jëloon yenn dayoo yi. nit ñi bu ñu dugg ci stade yi dañuy yóbbaale euh, ay boison alcoolisées di yàq di loolu mais tey leen nañ ko. ça veut dire que du problème boo xam ni mën nañ ko bañ a réglé. il faut il faut juste rek que ñu ñu gën a canaliser et puis nag après qu'on seen li ngeen di def nii si émission yi c'est bien ñu xam ni damay dem stade parce que tey jii euh, kuy dem stade. Eh, yaa ngi ragal yóbbu say doom. Mm. yaa ngi ragal sa santé yaa ngi ragal ni su ma fa demee sama oto sama loolu mais neexatul alors que vraiment tey jii ni mu ko waxee soo jëlaatee double lees ak Papa mm-hmm. na mu mel noonu tey combat bi indiwaat ko ça doit être une grande fête. pour tout le monde. et ki gagné ak ki ñàkk ñoom ñëpp war nañ mën a dem loolu c'est vrai que aujourd'hui les enjeux sont tels que kenn bëggul ñàkk mais il faudrait que qu'on prépare les gens à la défaite mu am défaite moom faw mu am après nag man li may wax tout le temps mooy man euh, loolaa sama xale yi man bañu ma defet dëkk si laay bañ. Mm-hmm. bañu ma ko ma gagné nga dëkk si laay bañ. tey gagné nañ ma nga après nga liggéeyaat pour ñëwaat parce que ni nga liggéeyee la sa adversaire liggéeyee mais il faudrait qu'on travaille sur ça. Mm-hmm. et loolu li nga wax ni euh, Adja mënuñu ko cautionner sous aucune forme. Absolument. que ce soit là-bas ou ailleurs. Mm-hmm. na nag sport. sport tey jii nii moo ànd ak violence. tey boo déggee Pape xam ne li may wax. boo jéegee termes yi utilisés dans le sport tey on parle de la défense on parle de l'attaque on parle de contre on parle de de de de de d'affrontement euh, le langage il est guerrier lexique de guerre lexique de guerre là donc aujourd'hui loolu dafay dafay mais on doit Euh, violence bi moom il faut que ñu ko et violence bi nekk nag dans la société souvent moo transféré wu foofu il faudrait qu'on continue à éduquer notre jeunesse parce que effectivement le sport aussi est un moyen aujourd'hui de promotion euh, de notre pays surtout de la lutte parce que lutte moom ñun ñoo ko moom te image bi ñu ci am dañ ko war a véhiculer à travers le monde pour que ñëpp am parce que foo dem ci yeneen dëkk yi te di nga gis ni lañu moom ñu ngi si ñu ngi c'est tout le cérémonial qu'il y a autour c'est tout l'aspect culturel bàkk yeeg yooyu mhm. il faut pas qu'on permette à des gens ñu yàq loolu et loolu lutte sénégalaise rek moom mooy allier à chaque fois li nga xamante ne moom mooy culture ak li xamante ne moom mooy la pratique sportive te nag wax dëgg yàlla Sa Thiès rëg-rëg daan na ma du gàccee ci Sa Thiès rëg-rëg ne Sa Thiès daan na ma du du gàccee bi ñu leen gisee gis nañ ay athlètes yu préparé wu dinañu ñëwaat léegi coach ci li nga xamante ne moom mooy l'aspect parce que on dirait que première chute bi li ko waral mooy Sa Thiès dafa euh, taxaw dafa dafa jël li nga xamante ne moom mooy pointe de vitesse am parce que Sa dafa am avantage boobu mbër la boo xamante ne dafa moom li nga xamante ne moom mooy yaramam et les gens avaient un peu parlé ci li nga xamante ne moom mooy poids bi Reug Reug cette fois si ñëwee ci combat bi c'est un combat d'enjeu mais par rapport ak acte d'incivisme boobu très rapidement ñu ñëw ci combat bi soo de sujet waaw damay confirmer coach Mamoussa li mu wax ci violence gis nga Angleterre oligarisme bi dépassé woon na li ñuy constaté tey ji ci lutte bi mais man je dis que du ci sport bi moo violent mais nit ñi ñëw jëlee seen problème seen famille seen liggéeyukaay ci biir société bi di ko transférer fu ñu dem muy nawetaan mhm. muy équipe nationale buy jouer muy euh, làmb buy am li ko mën a régler nag ñaari levier lañ ci mën a jàpp mooy benn bi di sensibiliser mais beneen bi renforcer la politique pénale état du Sénégal il mu jël ay matukaayam parce que aussi mënuñu nekk ci société ñu ne ñun dañu nekk réew moo xam ne réewu teraanga lañ réewu jàmm lañ réewu état de mais léegi élément de langage li ngeen doon wax sànq ni élément de langage yi ngay dégg dans la société moom ngay fekki mooy mooy générer ji la la la violence te c'est-à-dire nag dafa war a dëppoo comme anglais bi ñu amee le problème du oligarisme ba ñu suspendre leen bannir leen des compétitions européennes dañu mujj jël un juge britannique amateur de théâtre mm-hmm. c'est lui qui a repensé le modèle bi nga xamante ne tey jii moom la ñuy bàkkoon naan première ligue première ligue en 92 mm-hmm. le juge Taylor boobu moom moo bind wax ne nañ def stade yi les des lieux de vie mm-hmm. mu am convivial mu am confort yoo xamante ne dina mën a permettre les familles ñuy ñëw di déplacé wu. Mm-hmm. en toute sécurité seetaan seen spectacle lekk naan jënd lu ñu bëgg dem ñibbiwaat si jàmm ak salaam on est capable di arriver mais euh, le gouvernement britannique d'alors nekkul woon ne dafa toog def laxisme dafa renforcer la politique pénale jàpp ñi koy def traduire leen devant les euh, devant les tribunaux condamner leen lourdement mais tey boo gisee ce phénomène là il est éradiqué mm-hmm. léegi lañ la naan SAP modèle anglais mm-hmm. mooy que spectateur bi ak joueur yi du ñu loolu suñu amul woon ah, les garanties ak gentleman agreement boo xamante ne leer nañu ne ñii du ñu tëbi fii ñëw agressé fii mais kon kenn du osé defar bu njëkk gis nga ay stade yu am ay barrières am ay cage loolu gisatuloo ko ci stade yu stade yu moderne donc il faut que la politique pénale état jël ay mesures ministre des sports initier ay ay ay loi yoo xamante ne dina aller dans le sens de vraiment combattre cette violence dans la société sénégalaise qui impacte malheureusement malheureusement le sport beneen bi ma bëgg a wax il nous faut respirer l'air du temps on ne peut pas avoir une infrastructure ultra moderne comme comme euh, comme euh, l'arène nationale mais euh, duñu utiliser modernité ci làmb bi par exemple VAR bi am ci football am ci basket mais pourquoi pas duñ ko indi pour régler ces questions là. tey jii peut bu doon ne mënoon dem vaar tey jii kon le problème ne serait pas posé. surtout que taal nañu écran bi nekk arène nationale. et euh, CNG. tàmm nañ organisation yu mel noonu ndax du benn yoon du du ñaari yoon li nga xamante ne moom mooy euh, tournoi bu CEDEAO di fi am te à chaque fois foofu dañuy utiliser li nga xamante ne moom mooy la la la la vidéo donc war nañ ko mun a yóbbu ci fi nga xamante ne moom mooy lut avec frappe parce que am na ay amateur yu ne bu fekkoon ne taxaw nañ visionner peut-être premier euh, seen premier euh, round bi boo moytuwul coow li ci am yëpp ak yeneen yi ba ñu gis insécurité bu gën a garaaw parce que benn moment sànnante nañ ay chaise on a vu regret def aussi acte bu am solo moment boobu sàccees ñëwagul mu dem ba ci jeunes yi ne leen bàyyi leen li ngeen di def mm-hmm. et il a raison parce que moom ak Sa ñoom ñooy joxante ay millions donc yëf yi coow li du woon ci gradin yi mais ci fi nga xamante ne moom mooy euh, ci ci enceinte bu arène nationale la woon ma bàyyi la peut-être ak bu fekkee ne sur le plan euh, par rapport combat dafa am yenn question yoo ko yoo ko bëgg a yoo ko bëgg a balaa ñuy changer de discipline. voilà Adja ni nga ko waxee rek parce que la dernière fois euh, seen face à face mu mujjee mujjul am. ndaxte lan ñi nga xamante ne ñoo topp euh, maanaam euh, accompagnants yi yi ànd yi nga xamante moo di face à face moo tax ñi nga xamante ñooy waa CNG actuellement ñu ngi si yoon bi parce bi boobu amee rek ci lañu leen li nga xamante moo di face à face dootul amat ci li nga xamante moo di

pour mu doonoon daan Sa waroon indi li nga xamante ne moo di poids bu mu indi d' après vous yow naka ngay jàngate li nga xamante mooy poids bi Reug Reug indi parce que li nga xamante moo di vivacité bi vraiment des na baax a baax ci ki nga xamante moo di Reug Reug waaw xam nga ñun li ñuy jàng moom mooy euh, nit ku ne muy équipe muy mbër muy leneen da nga am loo xam ni yaa ko moom si sa si sa si sa préparation mais yaa aussi ce qu'on appelle un plan stratégique bi nga xam ni dafay dépendre si adversaire bi ngay dajal tey su may bëreeg Pape Mbodj bokkul ak bu may bëreeg beneen mbër. parce que euh, nit ñi bokkuñu. bokkuñu ay caractéristiques. donc je suis obligé de prendre en compte moom lu mu am xëy na c'était par rapport à ça qu'il a voulu se mettre si euh, parce que aussi c'est des c'est des lutteurs professionnels. ñu ànd ak ay professionnels autour d'eux ñu dem di préparer wu ay États-Unis ak fu ne. donc je pense que ni les gens ont dû étudier l'adversaire et par rapport à l'adversaire ñu ne nañu indi loolu on est dans le cadre des suppositions mais aujourd'hui mbër mi rek ak entourage am ñoom ñoo la mun a wax exactement ce qui s'est passé par rapport à ça donc on respecte ça c'est un choix maintenant après c'est le résultat qui va dire est-ce qu'ils ont eu raison ou pas mais je pense que ni loolu la il faudrait qu'on prenne en compte am na loo xam ne lutteur moo ko moom xëy na ngay am kii day am doole kii dafa am loolu mais par rapport ak lutteur bi ngay kii il faut yow adapté par rapport à ça. mais li li ma benn question bi mooy. parce que gis nañu daal li euh, kii nga xamante ne moo di euh, rëg-rëg. Mhm. bëri na ñoo xamante ni ñu ëpp saa Thiès. boo xoolee Elton. boo xoolee ñooñu. Gris 2 ñoo ëpp ki nga xamante moo di. Sa Thiès ñoo ëpp waa Jordan. Mhm. ñoo ko ëpp ñaari yoon mais malgré cela dafa gàdde li nga xamante moo di moo di maanaam man poids ñëw daan leen. tey mu ñëw indaal beneen xar kanam peut moo tax mu niru ko li nga xamante moo di chute bi aussi. te Sa def euh, def na ko remarque bi. Mhm. parce que wax na ko ko ci seen face à face bi. Mhm. mu ne ko. daa jëlee euh, affaire euh, waaw. <laughs> c'est a dit son son adversaire. staff et du lutteur. D'accord. ñoom ñoo xam parce que ñoom ñooy seet ban moment ñu war a wàññi. ban moment ñu war a yokk ñoom ñooy xool par rapport ak euh, lutteur bi nga xam ne moo nekk ci kanamam. d'accord Papa Ma mhm. très rapidement parce que Reug Reug dem na équipe nationale te foofu boo fa demee y a des techniciens yoo xamante ne buñ la encadré par rapport ak sa poids ñoom ils sont stricts des fois dañ lay euh, da nga koy def pour mën a retrouver li nga xamante ne moom mooy sa mhm. poids donc bu amee expérience boobu ak et puis moment bii ni muy bëree ci MMA ak yooyu euh, peut-être ñi ko encadré ils ont jugé judicieux mu am tuuti poids ndax ñi ngi koy wax que ce soit moom moo daanu tey wala Sa Thiès wane nañ loo xamante ne man je pense que fi mu ne nii kenn mënatu leen bañ li ñu naan ci kuuru VIP de de l'arène. waaw mais man finalement lu may retenir mooy charge symbolique gu combat bi mooy doomu Papa doomu Double Less suñu dajee waroon na mën a nekk fet malheureusement tey ce qu'on retient mooy c'est une fête gâchée. waaw c'est une fête gâchée malheureusement loolu la ñu retenir te du loolu moo taxoon nit ñi investir seen xaalis. Euh, amateurs yi jóg dem waroon na ñibbi si jàmm ak salaam mais malheureusement lañ fa jëlee nekk na loo xam ne lu ñaaw la ñu war ko kondam ne te jóg ci jël ay mesures jël mesure nag dafa jot parce que mi ngi bëgg a ëpp lii nii mooy demaat ci champ religieux bi lii mooy dem ci champ syndical bi mooy dem ci champ politique bi mooy dem arti yeneen compétition sportive bi. ce qui n'est pas normal en tout cas félicitations à Makan par rapport à l'organisation gis nañ ténor yëpp Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 Modou Lo avec le combat royal Boy Niang numéro 2 ñoom ñëpp ñëw nañ fa incha allah dimanche prochain dinañu ko boole ak euh, finale bi certainement boo moytul ak réception Lionceaux yi. loolu la ñuy ñaan ñu ñëw ak coupe bi euh, coupe euh, euh, le trophée de la coupe d'Afrique des moins de de de vingt ans on l'espère dinañ si ñëwaat largement ak Grégoire mi nga xamante ne moom dund na fekkee na journée bi moom ak Souleymane Diouf ñooñu fa toogaloon donc très rapidement on va parler de basketball avant de parler football avec euh, l'unique représentant du Sénégal à la Basketball Africa League c'est l'AS Douanes mi ngi wàcc ndax le 11 inch'Allah mars ci la ñuy def seen première sortie ce sera à 16h. nekk le 11 mars fële ca Dakar Arena ñi euh, nga xamante moo di AS Douane représenté Sénégal ñoom daal euh, ñu ngi waajal li nga xamante moo di compétition bal bi ndaxte 2021 nañ ko mais ñu ngi toogee fi nga xamante moo di quart finale mais cette fois ci nag ak li nga xamante jot nañ ko def si yi ndaxte jël nañ ay angolais jaakaar na cette fois ci nag dinañ dépassé waa mën a ji ñoom ña ngay xool yoon wa nga xam ne daal ca leen mën a jaar ngir rek ñu am participation bu mucc ayib ca basketball la ligue lañ xam rek moom la ñu bëgg mooy def lu gën atum 2021 ci place nañ ko ca Kigali Mamadou Gueye paa bi nag ki nga xam moo di tàggat xam na ko lool ba tax na ca noonee la daal di recruter ancien joueur bu US Monastir di Marcus Chris Crawford ak ki nga xam ne mooy Terrell de Stocklin di meilleur marqueur ci ñaari édition bile ginnaaw ñaari doomu Amérique yooyu daal ki nga xam nag mooy technicien bi ca la daal di euh, tànn ki nga xam ne mooy doomu Angola bile di euh, Matthew Bryan Amening mi nga xam ne mooy évoluer ci poste ailier fort ak Michael Chukwuma moom bi nga xam ne ma nga nekk ca Angleterre jot na tànn ay doomi réew mi ku ci mel ni Jean-Jacques Boissy Momar Seck bu Jeanne d'Arc Mohamed Gueye nekk ca US Wakam ak doomu Soudan bi di xamaa Hamad Madia Malouak waaye ñoom ña nga daal di rejoindre équipe bile AS Douanes nag moom rek moo daal di nekk représentant bu Sénégal ca conférence bu saara ba tax na jongante bu njëkk war na ko daal di amal la ak club ivoirien bi di Abidjan Basket Club ndaje mi nag ñu ngi koy xaar ni ki gaaw fukki fa nag benn ci weeru mars ca bu 16 jotee fa nga xam ne moo di Dakar Arena. voilà ce sera du 11 au 21 mars prochain Dakar euh, capital du basketball africain ñu njortees na nag sénégalais yëpp dinañu dem supporter ñi nga xamante ne ñoom ñooy AS Douanes mais pas seulement AS Douanes mais aussi un fils du Sénégal muy Amadou Gallo Fall nga xamante ne moom moo nekk à la tête de cette organisation il a tout fait pour que conférence bi nga xamante ne moom mooy conférence su Sahara ñu amal ko fii ci Dakar rawatina ci Dakar Arena mais euh, Babou balaa ñuy ñëw léegi ci tableau bi dem ci football bi gis nañ aussi euh, jàngat bi nga xam ne AS Douanes jàngat na ko ci première participation ren mu dem ut ñi nga xamante ne ñoom ñooy les meilleurs ak même ball élevée bi euh, cette fois-ci on parle même d'une collaboration ku ci mel ne parfait adjuvant mi ngi liggéey ak Mamadou Gueye Pa bi ak staffam mu mel ni ils ont compris fi nii li nga xamante ne moom mooy yoon bi qui peut leur valoir pourquoi pas yu dépasser le euh, ne euh, Adja nekkul ne euh, douane kese moo Dakar Université Club Pa bi ñu nekk douane parce que nekk ñaari équipe yi nga xamante ne ñoo mën ci Sénégal boo waxee ba parfait ñoo jàpp si kon gis nañ li nga mooy maanaam njariñu ma parce que daaw ki nga xamante moo di parfait moo demoon représenté ki nga xamante moo di waa Sénégal cette fois ci ndekk ñi nga xamante euh, moo di le meilleur marqueur ci tournoi bi weesu di Crawford euh, maanaam nekkul ne caaxaan ay caaxaan moo moo tax a jóg pour nga jël li nga xamante moo di trophée bi jël ay américain jël tamit tamit li nga tamit moo tamit ay angolais tax na Adja ñi nga xamante ñoo di les douaniers 2021 presque maanaam ñu ngi jëfoon ay ñaari maghrébin kese lañ gars yi la gars yi recruté woon te ñooñu vraiment ay pivot la woon amoon nañ njariñ trop trop trop trop mais cette fois ñi nga xamante ni recruté nañu def Adja xel mën naa dal parce laa boo xa ay sénégalais kese kese gars yi dem fi nga xamante moo di Cardiff boole ci xamante ne basket lañ def seen liggéey nga xam basket moom bu ñu ñu reer bu ñu ndékki bu ñu añ yëpp si basket yaakaar naa ñi nga xamante moo di ay zone vraiment war ñu mën a dem sax ba dem final may pourquoi pas jël li nga xamante alors euh, Papa Mar euh, yow euh, coach mais d'abord Papa Mar baal excellente initiative pour gën a promouvoir li nga xamante ne moom mooy le basketball euh, africain ñu permettre leen ñu jëlee les dugal ko ci club bi loolu aussi beneen njàngat lay nekk parce que joueur AS Douanes di frotté wu aux meilleurs joueurs euh, du moment c'est une excellente initiative et puis ñu boole les meilleurs d'Afrique dajale leen euh, fi nga xamante ne d'abord moom mooy Sénégal ci conférence Sahara. waaw damay jaajëfal Gallo xamante ne vraiment moo am. moo ko porté même ne n'est pas seul au moins moom moo ko porté ba bal bi am fii nii conférence conférence Sahara conférence nul nul euh, douane nag dañu commencé am métier ci affaire bi parce que xam nga rek bu dee dañ nax daaw ren di nga mun a xam nooy ñëwee dans le sport moderne amul secret on est en entreprise avec les même logique économiques et le modèle de la BAL permet aux clubs aux clubs qui participent de gagner suffisamment d'argent loolu moo leen di permettre ñu def recrues yi nga xamante ne wax nañu ko parce que li ñu am ci bal bi xa seenuñu sax lu ñu xaw a jege ci. championnat championnat local bi et c'est normal. Mm-hmm. parce que logique yi du ñu benn. Mm-hmm. logique yi du ñu benn là on est sur des bases associatives alors que là-bas on est sur une base économique. transport moderne amul amul secret. loolu bilan bi ñu lay tiireel da ngay xam ne ñii. li ñu def dañ ko étudier xam nañ ko bu baax et je pense que yeneen fédération yi war nañu inspiré wu ci modèle économique boobu pour mën a booster seen championnat euh, local donc euh, le fait que ñu xëcc parfait adjuvant c'est la même chose nga renforcer ak ay équipe ay joueurs yoo xam ne venant d'autres d'autres d'autres pays mm-hmm. donc logique continuer foofu mm-hmm. et je pense que pas bi ak euh, parfait nekk nañ ci technicien Sénégal nga xamante ne vraiment dañu jige le haut niveau parce que ñu ngi accompagner les sélections nationales chaque fois que compétition am donc c'est tout à fait normal que ñu war a mën a mutualiser seeni forces pour que vraiment au-delà de l'AS Douanes y a le Sénégal et l'image du Sénégal l'image du basket sénégalais absolument qui est en jeu qui waaw malheureusement on a été <laughs> éliminé récemment dinañ raté coupe du monde mais bon c'est nañ defarwaat nañ defarwaat coach par rapport ak euh, tournoi yu mel nii nga xamante ne dafay réunir les meilleurs di ci dem c'est à chaque fois jàngat la euh, parce que daaw quand on parle de parfait adjuvant DUC moom moo nekkoon le représentant du Sénégal euh, donc moom aussi am na expérience su euh, compétition boobu moo tax xam naa certainement ñu associé ko ci benn staff boo xam te ne dañuy entouré Mamadou Gueye Pa bi. waaw loolu moom mooy compétition. on apprend la compétition en faisant de la compétition. Mm-hmm. on, on on devient grand en se frottant au grand. Mm. c'est ça c'est ça le haut niveau. c'est ça le haut niveau. taa yoo demee ci mun nga gagner mun nga perdre mais tout le temps enseignement ya ngi si am moo lay permettre boo waatee nga mun a progresser et là on voit que la douane a appris de li mu defoon jàng na si erreur mi xam na lan la war a indi tey jii nii euh, tey euh, mutualisation boobu mu wax mu am solo tey man dama ko gis sama bopp quand on est allé pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique j'étais avec Malick Daf mm-hmm. mais c'est un plus dans une sélection bi ñu demee Nouvelle-Zélande j'étais avec Bachoiré Diaby et aujourd'hui il faudrait que ñu liggéey ñu xam ni parce que man cours bi nga xam ni dama ko jàng mu mu loolu ma c'est c'est la la comment ça s'appelle la perception tey man euh, Babou ñu ngi lay xool mais nous ne voyons pas la même moom gisul sa nopp côté bi. man gisuma beneen côté bi. Mm-hmm. ça veut que bu ñu xoolee ñun ñaar nos regards croisés. Mm-hmm. surtout avec des techniciens affirmés. Mm-hmm. mais ça nous permet de progresser. loolu nag il faut xol yaatu. ñu xam ni euh, ñëpp xaj nañ si kii ñëw dafay indi rek un plus pour te permettre de mieux faire ton travail et donc euh, ñu féliciter coach par rapport à ça di remercier et di féliciter Pape Gallo parce que aussi c'est un athlète de très haut niveau qui a fait de très haut niveau et qui est en train de faire des choses non seulement pour le Sénégal mais pour l'Afrique c'est une fierté aujourd'hui pour l'Afrique mhm. et aujourd'hui il faut que ñu féliciter ko ci élan def il parle comme Pape l'a dit il mun ko def ci yeneen sport yi pour que suñu sport di gën a progresser. absolument on a besoin de ce genre de de de compétition de de tournoi alors Babou ñu ñëw ci tableau bi nga xamante ne moom moo concerné euh, d'abord conférence bu njëkk bi muy conférence du Sahara ñu koy ñu koy disputer fi nga xamante ne moom mooy Sénégal Dakar. voilà le 11 la nar am léegi Penda boo ñu mënee may li nga xamante ne moo di euh, tableau bi. Mhm. mu war a door maanaam incha allah le 11 fi nga Ten Dik nag di nekk représentant bu Sénégal bokk ci bu baax a baax mu nii nag euh, ñi nga xamante ne moo di Abidjan basket club nekk fële ci Côte d'Ivoire mooy li bokk na ci ak Kawra Falcon nekk fële ci Nigéria stade malien euh, stade malien euh, bu Mali ak AS Douane nekk suñu représentant ak Reg bi nekk fële ca Rwanda ak équipe bi nga xamante moo di US Monastir ñu jàpp ne euh, vraiment euh, mu nekk équipe bi nga xamante moom la gaa yëpp di daw moo di US Monastir ndaxte vraiment jël ko ñaari yoon nekk li nga xamante moo di bal du nekk lu yomb soxna Adja bi tey absolument champion en titre <laughs> mais les Sénégalais seront là et vont pousser leur euh, leur équipe vers la victoire muy AS Douane donc le programme samedi inchallah c'est-à-dire le 11 on va démarrer AS Douane dafay jongante ak Abidjan Basket Club ce à 16h et puis on attend que Sénégalais gën a taaral li nga xamante ne moom mooy compétition bi donc on vous le rappelle ce sera du 11 au mars on va revenir euh, large largement sur cette euh, compétition donc très rapidement on parle de la sélection cadette euh, nga xamante ne ki ko coté mooy Serigne Saliou ja ñi ngi wàcc ndax foofu ñoom tamit dañu dañuy dem ci beneen coupe d'Afrique alors euh, ci euh, waajtaay bi nag jongante nañ ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy Cameroun

ci di xool li nga xamante ni lan moo doxul la ñu war a yokk ak la ñu war a def moo tax match mhm. amicaux moo tax loolu tamit dafa fay bi ñemee fi nga xamante moo di Égypte def li nga xamante moo di Inde am jàpp ne li nga xamante ne match tamit ëllëg bi même bu ñu gagné ak bu ñu ci gagné wu rek ki nga xamante moo di coach bi mooy xool la xamante lañ li ñu ci war a yokk ak li nga xamante ne moom lañ ci nar a wàññi soxna Adja alors euh, coach qu'est-ce qu'on peut lan la Sénégal mun a am euh, ci match bi euh, cette double confrontation parce que joué nañ fi nga xamante ne moom mooy euh, fële ca centre technique Jules François Bocandé gaynde ak Sénégal yi baabu ñoo ñoo gagné 1-0 <laughs> ñoo gagné <laughs> alors ñu war a amaat cette fois-ci une autre euh, euh, confrontation ce sera le 7 cette fois-ci au stade Lat Dior de de lan la ñu mun a am foofu parce que déjà gis nañ excellente prestation euh, mais malheureusement ci finale bi euh, ñu ils ont été finalistes ci tournoi IFOA A bi nga xam te ne moom moo amoon fii ci ci Nouakchott euh, mais malheureusement ils ont ils ont été battus euh, un peu xaw a tuuti inexpérience am na mais cette fois-ci match bi lan la leen mun a andi cette double confrontation oui euh, c'est important pour coach bi déjà pour mu xayma liggéey bi mu def parce que euh, entraînement doyul match mooy permettre entraîneur mu xam parce que match dafa nekk ci beneen dimension et dañuy wax match amical mais aucun match n'est amical parce que si biir match bi yow si ngay gis parce que dafay am tension nerveuse dafay am stress dafay am xale bi commencé jàng loolu yow nga xool si équipe nan lay comporté woo parce que souvent lan mooy am da ngay gis équipe bu entraîné ba ba baax ay trois mois 4 mois jour match mu mel ni du ñii nga xamoon parce que dafa am environnement bu changé dafa am contexte bu changé joueurs yi indi laneen donc il faut commencer à les préparer à ça surtout ay xale nañu ay U17 nañu c'est vrai que championnat Sénégal nañu joué fii mais boo demee si compétition internationale yi tout de suite cadre bi rek day changer et ça devient autre chose pour toi donc c'est important pour coach bi xale yi commencer tam environnement boobu ba pare euh, li mu def comme stratégie mu mën a xam ndax baax na ndax baaxul parce que adversaire bi aussi c'est un adversaire de taille et aujourd'hui ñu euh, leen félicité pour match boobu mais je sais que ni entraîneur bi du yem ci résultat bi di gën a am importance pour moom muy contenu bi et puisque dafa war a jël ay xale nag pour faire la liste définitive ñu war a dem ci la koy permettre mu xam sur qui il peut compter kii bu ma ko dugalee dina ma defal lii kii bu et donc tout suite day am ay certitude moment bi muy dem ci compétition majeure bi. d'accord. Babou. waaw dama ne euh, Sénégal moo gagné euh, dama la expliquer Adja ne Sénégal moo gagné 1-0 mais dama ne.

parce que compétition yëpp Sénégal ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi koy est-ce que dañu am benn dañoo gis ne euh, li nga xamante moo di moo la gars yi di tenir bu def mais similarité bi nga xamante moom ci U17 yi moo am ci maanaam U20 yi moo am ci li nga xamante moo di U20 yi si loolu loolu est-ce que tamit dafa nekk bénéfice boo xamante ñaa koy wax jàng euh, mooy suñu coach locaux yi maanaam liggéey bu ñuy liggéey maanaam amul amul amul amul séparation parce que maanaam yëpp lépp benn la. ku ci après di nga si di nga dina si tontu parce que c'est c'est lui le technicien. et il travaille avec euh, ñoom ñëpp au sein de la direction technique nationale. Mm-hmm. donc euh, xam nga euh, élève bi moom. Mm-hmm. war nañoo xool kan mooy sëriñam kan moo ko jàngal. effectivement te nag football bi technicien yëpp dañu am une direction technique nationale. récemment euh, la qualité du football sénégalais à travers sa petite catégorie dafa def euh, occuper espace médiatique bi ci ci continent bi ci Europe ci àddina bi yëpp. qu'est-ce qui fait le secret du Sénégal. Mm-hmm. parce que nit ñi lu ñu jàpp mooy la qualité de la formation de technicien techniciens d'abord. loolu mooy élément parce que booy xool. Mm-hmm. formation yi ni mu mel léegi melu ko woon. yaa y a il y a vingt ans. Mhm. melul noonu. donc les techniciens ont su s'adapter à ce qui se fait de mieux à travers le monde. Mm mais loolu forcément dafay impacter euh, le travail de formation qui se fait à la base Serigne Saliou Dia bu ñu fàtte ne premier titre continental bu ñu am en football ak les Jeux africains Serigne Saliou Dia moom moo ko gagné woon Serigne Saliou boobu moo yor équipe bi U17 moi j'ai été le match. on a on était en face d'une bonne équipe bi Cameroun. Mhm. première mi-temps ñu def 0-0 avec un bon contenu. Mhm. deuxième mi mu def ay changement mhm. ci changement yooyu ci la ñu amee but c'est l'occasion ma féliciter waa Mbour ak waa Thiadiaye. bari nañ fa woon lool démb <laughs> ci joueurs yi ñu ñëwoon di seetaan si. xam nga donc pour vous dire que dans la région de Thiès en tout cas et un peu partout dans toutes les ligues régionales dans toutes les régions il y a un travail extrêmement qui se fait à travers les DTR les DTD xam nga et sous la coupole de la direction technique nationale bi nga xam ne moo nekk biir fédération sénégalaise de football donc li nga xamante ne gis nañ ko démb c'est un match amical international ak cérémonial bi mu war a àndal c'est préparer les jeunes comme ni mu ko mm-hmm. waxee sànq comme ci environnement compétition ci gazon synthétique bi ñu effectivement léegi euh, euh, prochain match bi dañuy yóbbu ko sat mm-hmm. def simulation bi en grandeur nature ci beneen environnement mm-hmm. waaw donc euh, fi ñu ko jàpp nii yaakaar naa foofu la mais sauf ko li président waxoon rek il faut ñu dellu si il faut technicien formateur yi ñu wut ay tueur parce que démb on a raté des occasions yoo xamante ne très sincèrement deux contre le le gardien adverse ñu njëkkante ba dugaluñ xam nga moom technicien yi dinañu ñëwaat sur l' aspect mental euh, l' émotion et cetera et cetera naka lañ mën a def pour xale yi dans dès la formation ñu préparer ba ñu am ay genre mm-hmm. ñoo ñu nga xamante ne demi occasion sax ñu def ko si biir loolu dafa manqué Sénégal te yaakaar naa ne loolu tout le monde en est conscient te xam naa ne plan programme bi nga xam ne direction technique dina ko élaboré ànd ceeg technicien sénégalais yëpp dinañu intégrer waale facteur boobu. alors coach qu'est-ce qui explique euh, presque ressemblance bi baabu di wax balaa ñuy dugg ci U20 yi dañuy permettre ñu dugg ci sunu sunu sunu beneen sujet bi équipe A bi mu mu mel ne dafa def benn colonne vertébrale rek ci les différentes autres euh, catégories maintenant. Euh, benn réalisme bu extraordinaire lañ gis c'est vrai ça manquait euh, au, au, football sénégalais euh, mais presque dafa am une certaine ressemblance c'est c'est c'est quoi. léegi dañu xam ñun ñooy kan c'est-à-dire le profil du joueur sénégalais nous on a tout le temps essayé de jouer comme les autres. Mhm. c'est-à-dire modèle espagnol modèle français modèle euh, mais léegi dañu xam ñun lan mooy suñu qualité. Mhm. c'est-à-dire nous on a des joueurs qui sont puissants qui sont très athlétiques qui sont agressifs mhm. et donc il faut qu'on installe ça aujourd'hui le football de c'est l'intensité c'est l'agressivité et la verticalité footballeur sénégalais yi duñu bëggoon ñun am njaay indil jóob mu rafet am dugal génne après waa ji jël bal bi këf ko dugal ko sa camp dugal ko sa camp mhm. après mais léegi public sénégalais bi doon réclamer loolu réclamer tuñ ko léegi dañuy wax football bu rafet waaw mais nañu dugal nañu gagné ah. parce que c'est la culture de la gagne mhm. parce que c'est pas parce qu'on a la possession qu'on gagne. Mm -hmm. À un moment, avec le football espagnol, c'était le football de possession. Aujourd'hui, c'est le football de position. Jouer, war a taxaw pour avoir une supériorité de position. Parce que ñun ñaar nous avons un contre un mannequin. Mais si je suis taxaw, taxawaay bi ma taxaw génn me permettre man ma dem dugal yi te pourtant un contre un la. Mhm. xam nga bu ñu jàppee non égalité numérique mais dafay am supériorité de position aujourd'hui loolu nit ñi liggéey tey bu ñu xoolee équipe Sénégal yëpp ñu commencé li nga xam ne mooy la force de notre équipe A c'est son intensité de mhm. récupération ça dire Sénégal ci Coupe d'Afrique bi lan moo doon force am chaque fois qu'on a perdu le ballon balaa adversaire bi def trois passes récupéré waat nañu ballon et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le, le gegenpressing moom la allemand yi di woowee gegenpressing nit ñi du ko wax contre pressing c'est-à-dire ou le pressing à la perte ça veut dire l'équipe va rechercher le ballon au moment bu mu ko perdre et ñun suñuy qualité joueur mën nañu ko permettre tey soo xoolee équipe A c'est Sadio Mané qui qui perd le ballon et le premier il va le chercher. Mhm. donc nous disons à nos joueurs vous pouvez perdre le ballon ce n'est pas grave mais il faut le chercher tout de suite. Mhm. et aujourd'hui on voit que dans toutes nos sélections on voit ça. parce que on a fait des séminaires il y avait la direction technique il y avait Aliou Cissé il y avait tous les sélectionneurs et on a commencé à discuter Sénégal parce que il faut qu'on modélise c'est-à-dire à partir de ce qui ñu xool lan moo gagné mhm. et ñu commencé liggéey ci comment faire pour créer d'autres Sadio Mané d'autres Gana Gueye tey soo xoolee France bi ñu gagné coupe du monde ils ont recherché les mêmes modèles mhm. les mêmes joueurs ils ont gagné c'est vrai. on a cherché les mêmes modèles on a reproduit à Clairefontaine les mêmes joueurs parce que les gens disent que ce sont les mêmes causes les mêmes causes produisent les mêmes les mêmes effets et donc c'est ça donc fi mu ne nii Sénégal comme xam nañu lan mooy compétition de haut niveau yàgg nañ ci dem yenn yu ñu doon naxee c'est fini naxi naar yi di la nax si ay problème mu gazon problème mu ay si dàll ay si fini sax si fini on comprend ça et on a nos valeurs on a nos centres de formation qui travaillent bien on a nos formateurs qui sont de qualité et nous avons aujourd'hui la chance boo xam ne peut-être ñun rek noo ko am Afrique d'avoir des formateurs de formateurs qui sont bien formés comme vous d'accord ah. alors euh, très rapidement on vous rappelle le match ce sera le 7 inchallah fële ci stade Lat Dior ce sera à ndax gaynde yi ñi ngi waaj nag pour dem ci Coupe d'Afrique bi war a am fële ci Algérie ce sera du 29 avril au 19 mai prochain euh, lionceaux yi nag maanaam cadets yi ñi ngi ci groupe A bi ñoom ak pays hôte bi di Algérie ak euh, Congo ak euh, Somalie boo ko defee ñu dugg nag euh, ci demi-finale bi war a am demain ci Coupe d'Afrique des moins de vingt ans avec euh, cette qualification euh, des Lionceaux, les protégés de Malick Daaf, euh, qui se qualifient en demi-finale et qui composent aussi leur billet pour la prochaine Coupe du Monde 2023. voilà Adja mu nekkoon match bu maanaam match bu metti woon match boo xamante yombul woon ci ñaari équipe yëpp mais teew ñi nga xamante ñoo suñu gaynde yi mujjee nañu am li nga xamante moo di seen qualification jëm ci coupe du monde bi tamit jëm ci li nga xamante tamit moo di ci demi-finale bi ñu xool seen juróom-benneeli participation ñii di gaynde yi ndaw ñi ba tey ñu ngi ci course bi. pour dem jëli li nga xamante ne moo di coupe bi waaye teewul qualifié li nga xamante ne moo di coupe du monde des moins de vingt ans ñu jàpp ko du 20 mai au 11 juin 2023 fële ca Indonésie waaye si match bi nga xamante ne moo doon dox seen diggante ak Bénin si première période bi nekkoon na match bu équilibré ndax ñii di suñu ay gaynde yi amoon na ay jafe-jafe pour dérouler li nga xamante ne moo di seen jeu habituel waaye nag si balle arrêté yi lañ ko wékk gannaaw ba ñu amee benn coup kii di métronome bi di Lamine moom daal moo ko dóor sante ko kii di Samba Diallo jar si ginnaaw défense béninoise bi ci deuxième poteau bi ci la def benn tête plongeante marqué bal bi. moom attaquant Dynamo de Kiev bi amaat na beneen occasion ndaxte kii di Abdoulaye Faye moo profité si benn télescopage si gardien béninois bi ak défenseur bi passe kii di Samba Diallo. waaye kii di Samba Diallo bu mu dóoree bal bi ci barre transversale bi la dal. Souleymane Faye lays off it at the bar from Diallo. Can you believe it? Well, that was match point. There's no doubt about that. Rahman Karim Voilà, c'était la réaction de <laughs> du technicien qui est en train de vivre euh, toujours li nga xamante ne moom mooy cette rencontre qui avait opposé euh, le Sénégal euh, au Bénin et puis euh, une rencontre sanctionnée par cette victoire des Lionceaux un but à zéro ils ont fait l'essentiel d'ailleurs juste après cette rencontre ki nga xamante ne moom moo leen di tàggat Malick Daf dellu siwaat na ci li nga xamante ne moom mooy déroulement match bi effectivement Adja moom daal dafa wax ne yaa xaaruñu woon jouer match boo xamante ne match bu yomb la parce que dafa jàpp ne xale yi dañoo def ay coono yu méttee métti ci li nga xamante moo di match de poule yi moo tax li nga xamante moo di quart de finale bi xawoon na jafe si premier mi-temps deuxième mi bi gis nañ ay coppeeku ñu xool dolli sant yàlla rek dolli sant yàlla bu baax parce que wax dëgg yàlla euh, euh, match match poule ak match euh, élimination directe dafay wute quoi. ñun ñu woon jouer match bu yomb quoi malgré adversaire bi terewul bi ñu ñëwee booy def nañu match bu bu baax parce que début bi rek moo difficile parce que vraiment adversaire bi ñëw na jéewul am bloc bu compact aussi mais nu booy aussi on a senti que lu ñu joxe woon sur le plan physique de l' intensité bi joxewuñu ko par rapport ak match bi mais j'ai compris avec la répétition des matchs yooyu joué na ci mais terewul booy yi à la mi-temps bi ñu ñëwee deuxième mi-temps bi on a marqué dañu teel dugal loolu tax na aussi booy nekkaat si match bi am nañu deuxième troisième quatrième bi malheureusement dugaluñ ko mais ça ça le football il faut pas trop les en vouloir parce que xale xale lañu bon def nañu li ñu def gagné nañu il faut tirer les enseignements mais. il faut pas ñuy xaar chaque fois di gagner 3 4 0 parce que football si adversaire bu ñu ba jàngale dañuy ñëw toog xaar préparer match yi di ñëw ndax demi-finale moom boo fa yegsee mooy presque dugg nga ci cappaandaw li mooy presque ci fête bi à l'apothéose donc foofu du yomb ça va être beaucoup plus difficile encore na ñoom gën a humilité rek ñu concentré wu préparer match yi di ñëw incha allah def suñu kéntulaay kattan def li ñu war yëpp incha allah pour géem a l'objectif mooy la finale incha allah bu neexee yàlla alors c'est tout le mal d'ailleurs qu'on souhaite à cette sélection mais coach lan nga ñu ci mun a yokkal euh, parce que ont on a vu des lions qui ont été très flamboyants ci premier tour bi ils sortent leader euh, de leur poule muy la poule A euh, ñu euh, retrouver Bénin tout le monde disait attention aussi même si Bénin moo doon troisième fi nga xamante ne moom mooy seen poule di di di poule C mais bu ñu sukkandikoo ci statistiques yi le Bénin a, a a dominé la rencontre même si les Sénégalais quand même il faut le dominer n'est pas gagner heureusement. Ouais. heureusement et euh, mais si moment clé yi moment yu am important yi Sénégal wane na boppam ils ont maîtrisé le match. ça veut dire que quelque part on n'a pas été trop trop euh, bousculé wuñu trop et ça c'est important une équipe qui joue avec cette sérénité là on sent beaucoup d'expérience de la part du du staff. Maldas me ko si félicité mon frère je me rappelle la dernière fois que j'ai fait une émission ici c'était avec lui sur le plateau. oui c'est vrai. waaw nit baax ma koy nuyu. Euh, mais je pense que aujourd'hui ñi ngi ñi ngi gagné euh, sànq dama wax benn terme intensité waxaat na ko. Mhm. il a parlé d'intensité. qu'est-ce qui a appliqué genre baisse de régime boobu. mais parce qu'on a joué trois matchs avant et presque avec le les mêmes joueurs. et donc euh, accumulation de fatigue bi. le même onze de départ. presque dafay dafay dafay non c'est c'est compétition c'est match. parce que nit ñi dañuy xalaat simplement sur le plan physique. mais usure même joueur bi nga xam ne dafa toog ci banc de touche bi footballul il subit la même charge émotive que les autres joueurs dafay dafay sonn dafay sonn trop donc gestion équipe bi durant cette compétition loolu mooy metti c'est très très difficile euh, compétition yu mel nii. Et il fallait gagner surtout le troisième match. Les gens pensaient que dafay tourner, mais c'était l'Égypte. Mhm. Il fallait faire euh, une grande performance contre cette équipe-là pour consolider la confiance qu'il y a dans le groupe. est-ce que boo nekkul la ñoom dañoo dugg si match bi ne jàppale ñoom gagné nañ match bi ba pare parce que boo ñëwee def 3 match 3 victoire marqué li nga ñëw daje mooy équipe bi gën a faible si ne gars yi dañoo gagné match bi sans pour autant le euh, parce que match dafa am moment boo xam ni il faut mu équilibrer parce que aussi on est on est on est on était en quart de finale. Mm-hmm. ah il faut respecter l'adversaire élimination directe mënuloo ñëw ne da ngay kii te kii connaît Malick Daf il a parlé tout à l'heure d'humilité c'est quelqu'un qui est très humble qui respecte les adversaires et qui joue sur ses valeurs man xam naa ko xam naa ko bu baax donc euh, quarante cinq yu njëkk yi souvent naxante la pour xool nan ngay fexe jéem a am dara mais bañ a jël parce que si tu prends le premier but dans une compétition comme ça mm-hmm. après ça devient difficile Et après, avec les changements, deuxième période, avec nous, nos puissances, on a pu sortir notre jeu, marquer le premier but, sans que je disais sur le, le deuxième ballon, boy, peut-être balle de moins de rebond. Mais il avait, il, a, il, avait le but, le deuxième but, on aurait pu mettre 2 ou 3-0 sur ce match-là. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce match a été bien négocié mm -hmm. par le staff et par les joueurs. Et il faut les féliciter par rapport à ça. Il faudrait que nous, nous récupérions Boubar. pour que bu ñuy ñëw ci demi-finale bi ñu indi assez de fraîcheur. Ouais. pour pouvoir euh, faire le match qu'il faut et nous propulser en finale. parce que déjà il fait très chaud fi nga xamante ne moom mooy Égypte. Euh, Papa Ma ñu ngi ñëw ci yow mais fa aussi ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy le match qui doit opposer euh, demain euh, lundi yi nga xamante ne moom mooy Sénégal ak Tunisie tout à l'heure Malick Daf et Lamine Camara le milieu de terrain des Lionceaux ont fait face à la presse. bi mu ci jógee nag wax na ak service de communication bu fédération sénégalaise bu football. effectivement Adja def nañ conférence de presse bi léegi léegi ki nga xamante ne moo di Malick Daaf ak kii di Lamine Camara Malick mooy dem demi-finale pour qualifier li nga xamante mooy coupe du monde bi beneen li nga xamante ne mooy jël trophée bi mais àgguñ foofu moom dafa jàppale match bi leen soxal ëllëg mooy match bi nga xamante moo di contre Tunisie a génn si li nga xamante objectif intermédiaire mooy bi si njëkk mooy géem a qualifié coupe du monde beneen bi si mooy géem a dem gagné ji remporté ji titre bi gagné trophée bi. je pense que li nga xam ne loolu lañ doon ñaan yàlla bi si njëkk yàlla defal nañu ko mooy qualifié nañu coupe du monde waaye def na beneen objectif mooy gagné titre bi mais loolu aussi pour mun am da ngay concentré wu sa match bi nga xam ne ngay joué contre la Tunisie. nga gagné ko soo ko gagné nag nga dem final boo demee final nga mën a wax coupe pour le moment on est concentré sur le match contre la Tunisie parce que amul mille solution benn solution mooy am dañoo bëgg gagné dañuy ñaan Sénégalais yëpp ñu ñaanal ñu jàppale ñu booy liggéey nañ ko ils sont conscients xam nañu leen xaar ñun staff bi xam nañu lu xaar en tout cas nous ferons tout maximum def lépp lu nga xam ne moo ñu war moo ñu war pour essayer gagné match bi incha ma ci naa ko ñaari yoon am na lu ma jot ñaari yoon tamit di nga am benn idée ñoom gis naa yoon bon loolu chance la quoi mais li ci nag moom comme li ñuy wax match élimination directe la donc lu ne mun na mun na ay changement l' ñun on est concentré sur nous su suñu suñu équipe parce que booy vraiment concentré nañu si seen bopp te gis nañu vraiment motivation bi nga xam ne mu si ñoom li ci des nag mooy ñaan yàlla kenn bañ a gaañu ñëpp ànd ak wér ak sawarte bu subaa incha allah ci kàttanu yàlla ñu def li nga xam ne loolu la ñu war a def. objectif bi mooy comme ni ma ko waxoon rek instant yi moom alhamdulilah réussir nañ suñu premier objectif bi mooy qualifier si coupe du monde bi mais beneen bi mooy kii jël trophée bi incha allah mais pour loolu franchir ay étape mooy étape bi mooy Tunisie incha allah donc match euh, Tunisie faa ñu préparé ko bu baax te jëlee ko au sérieux bien vrai que joué nañ ak ñoom ay deux matchs mais match yëpp duñ niroo bi beneen contexte la mooy. ak match éliminatoire te match éliminatoire amul beneen issue bu dul gagné rek incha allah te booy yaakaar naa ils sont conscients que match bi match c'est un match à gagner allah on va être concentré pour gagner match bi. bon loolu dégg ko rek motivation la nii boo gagné. trophée bi di nga dugg ci histoire eh, te ak âge mu am vingt ans donc euh, loolu lu bëri la si man mais chan bi moom pour l'instant fàtte naa ko maa ngi si ko may concentré aussi kan bi te sama bëgg moom mooy jël trophée bi incha allah te incha allah on va le faire parce que ak groupe bu ñu yor nii boo yëpp ñëpp bëgg nañ gagné te booy yëpp bëgg nañ jël coupe bi yóbbu ko Sénégal parce que yaakaar naa ne instant moom mooy suñu objectif. première réaction après le discours de Lamine Camara euh, nga xam te ne dafa identifier boppam ak euh, Idriss Gana Gueye dit qu'il a qu'il a toujours faim le charme c'est c'est derrière lui c'est vrai ils sont ils d'Afrique euh, ci li nga xam te ne moom mooy catégorie boobu mais là ils ont ils ont faim ils vont faire le nécessaire daje nañu ak Tunisie en amical deux matchs benn bi nul la benn bi victoire ñoom mais ça c'est derrière eux bi changé na tu sens beaucoup de maturité malgré son jeune âge. de sa part oui sa part et ça ce qui montre ni expérience euh, du si du si âge. Mm. c'est le vécu. Mm-hmm. ku saan ku ko xool xam ni c'est un yàgg na si mbir mi. Mm-hmm. il parle il serein. et parle comme une comme entraîneur bi bi wax waaw c'est vrai dama koy déglu j'étais très content. Mm. parce que loolu aussi dafa baax xale dal. dafa dal mm-hmm. xam na li koy xaar. et il dit que ni ils vont se léegi nag euh, soo buggee gagné dara da ngay fàttali li nga defoon chan bi moom passé mhm. moom c' est dans la poche comme on léegi nag le reste c' est de se battre demain y a le match de la vie. Euh, euh, qualifié nañu ko bi moom c' est derrière. léegi beneen objectif bi la et ça passe par le match de demain c' est que souvent ñun li def moom mooy dañuy tëb match. étape dañuy tëb étape. dès qu'on est allé demi-finale nit ñi wax na coupe bi ñëw. balaa ngaa dem coupe faw nga nga dem final faut nga dem final donc lui di euh, match bi suba bi la et adversaire bi donte xam nañ ko uh-huh. mun na indi leneen parce que c'est un match boo xam ni il faut juste gagner mais coach mm-hmm. ngay joué adversaire boo xamante xam nga ko joué deux matchs amicaux ak euh, Tuni ak euh, Tunisie ñu war a joué demee moom ñaari équipe kan moo ci profité selon foofu ñaar ñëpp xamante nañu xam nga soo joué ak nit ki ça veut xam nga ko xam na la donc c'est un avantage pour toutes les deux équipes mais problème bi moom kan ku si ngay indi lu bees pour bête adversaire. est-ce que la fraîcheur sera très déterminante dans cette rencontre. forcément parce que Tunisie def na prolongation. Mm-hmm. dem na série tiro au but face aux Congolais aux jeunes Congolais. oui oui mais ce n'est pas l'élément déterminant. parce que benn moment. nit ñi dañuy am ay réserves yoo xam ne doo xam fan nañu ko jëlee. on a vu l'équipe de Croatie par exemple ci euh, coupe du monde. coupe du monde mm. ils ont fait trois matchs. mais président boobu sori na Égypte coupe d'Afrique bi. voilà prolongation yi def. oui oui Égypte. c'est vrai dem série tir au but deux ou trois fois et et donc doo xam fan nañu jëlee les ressources mentales pour loolu parce que après pour pour pour arriver xam pour dem finale non dafa jar dee. donc tey jii nii il faudrait que xale yi xam ni suba xare badaar la. Mm. amul amul dara lu ñuy maye. Euh, y a les aspects techniques y a les aspects mais xeex la matchu xeex la match c'est le match de leur vie. et ñoom war nañu duggee ci marché bi ak loolu ils ont les capacités de le faire et je pense qu'ils vont le faire demain. et le changement de stade amul dara lu muy lu par rapport à seen seen planning parce que ñu ko doon laaj su mi doon wax ne boo moytu dañuy xaar rek ba mu des ay deux heures comme euh, canal de Suez la ñu joge ñu jógee Caire plutôt euh, dem jouer suñu paree dellu si waat parce que c'est à deux heures hein, maximum de de de route. mais souvent c'est euh, à la CAN les, les terrains sont presque similaires. identiques par exemple boo duggee woon ci synthétique war a dem ci gazon naturel. Mhm. mais presque yëpp gazon naturel la et c'est les mêmes conditions. ça va être arrosé avant le match ça va être arrosé à la mi et xale yi tam nañ xam loolu léegi. Mhm. tam nañ ko xam. donc man ragaluma on a des joueurs qui sont expérimentés. ñu mhm. joué chan on a des joueurs qui étaient ci suñu U17 ak Malick Daf. qui ont fait des compétitions majeures donc tey jii ils sont assez armés. pour pouvoir s'adapter par rapport ak situation bu mun a ñëw soudan incha allah. d'accord Babou. Paa Amar la nga jàpp ne ëllëg booy moom la war a mën a def pour génn ci li nga xamante moo di marché yi euh, est maanaam beneen poids bu ñu gisee ne ñi nga xamante moo di suñu gars yi euh, rek ñi nga xam ñoo jël bi y a un de cela ñu jël li nga xamante ni moo di maanaam kuddu kan bi est-ce que du nekk tamit beneen beneen pression bu ñëw tegu ci mbaggu xale yi. waaw mais xam nga li nga wax ni. Euh, Euh, source de motivation daf ci am lu bëree bëri d'abord gis nañu bu ñu gañee ay au Cameroun gis nañu CHAN bi bu ñu ko gañee peuple bi la plus haute autorité de ce pays là recevoir leen mais yooyu c'est des sources de motivation te man am na beneen euh, boo xam ne c'est hors football euh, boo xam ne war na mun a tax ñu gëy parce que ñoom ñëpp ñu ngi suivre l'actualité internationale le drame que vivent les africains en Tunisie effectivement kon li leen métti loolu également loolu yëpp ay source de motivation la <laughs> te li ma neex si équipe bi mooy discours xale bi dafay mel ni Mbappé buy wax mm-hmm. malgré son jeune âge day tenir discours yoo xam ne da nga naan mii kii xanaa dañ koy waxloo mm-hmm. lu muy wax c'est extrêmement important mm-hmm. et ci beneen jàngat bu ma def mooy que Bénin euh, moo nekkoon pire adversaire bu Sénégal daje par rapport ak ñeneen ñi ñi ñu croisé malgré que ñun génn nañ trois match trois avec brio suñu premier poule malheureusement Bénin dafa nekkoon équipe te bi mu mettee gis nañ xale pour man dañu respecter de trop sax. Euh, les les les les kii la. l' équipe adverse la. Ah, xam nga mais bi mu méttee gis nga ni ñu taxaw te comme ni ko Mame Moussa ci moment clé yi ils ont contrôlé le marche ils ont contrôlé le match. boo arriver à la ak seen stratégie gagner gagner marché bi même si c'est 1-0 il fallait gagner l'objectif c'était gagner mhm. c'était pas le score mais la victoire mhm. jàll nañu coupe du monde et c'est l'occasion ma nuyu sama frère Yaya Baldé <laughs> dans la délégation <laughs> fédérale vraiment yaa yaa Amara Traoré aussi ancien international président euh, donc euh, c'est quelqu'un boo xamante ne c'est sûr que euh, bu bu ñu toogee war a waxtaan Malick ak staffam c'est sûr que boo moytul dina dina participer ci li nga xamante ne moom mooy ci waxtaan bi très rapidement balaa may poser la dernière question parce que ma il faut ma ñëw euh, ci les équipes euh, keroog wax naa ko dina ko laajaat moom c'est un technicien. Mm-hmm. Euh, réussite peut-être mun nañ ne entre guillemets mais quand même des sélections de l'Afrique euh, de l'Ouest UFOA A UFOA B on voit que ces sélections là ci dernier carré yi jamono ji compétition yu bëri elles sont elles, elles sont présentes mais balaay loolu on donne euh, le programme de de de demain les deux demi-finales qui vont se jouer demain voilà pend bu ñu mën a jël li nga xamante moo di programme yi ndaxte demain incha allah euh, à euh, équipe bi nga xamante moo di suñu gaynde yi ñooy jouer ak équipe bi nga xamante ne moo di Tunisie deuxième match bi nag c'est à 17h mu di Nigéria ak équipe bi nga xamante ne moo di Gambie mu nekk match bi tamit match bu nar a neex la Adja. si mhm. diggante équipe bi nga xamante moo di Nigéria ak Gambie parce que ñaari équipe joueuses lañu. alors euh, un duel nga gis très Nigéria ak Gambie. Gambie ñu ngi liggéey lu bëri. surtout au niveau de la petite catégorie. et ça s'est vu si CAN bu mujj bi. et ils ont survolé leur quart de finale. Ah, absolument <laughs> les gens travaillent hein. ça mm. euh, dans dans leur coin. la Mauritanie est en train de travailler. waaw mm-hmm. si football féminin si football génie euh, si si euh, sunu zone bi tournoi FOA bi nit ñaa ngi si liggéey bu bëri et soo depuis quelques années. FOA B bi. amatul. Mhm. ñun rek ñuy organiser. organiser et ça ça permet aux enfants de de li ma wax sànq rek compétition. mooy tax xale màgg. joueur compétition moo koy màgg loo et aujourd'hui suñu xale yi ñu ngi jàngal fi loolu. Mhm. ils sont en regroupement constamment. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi def ay euh, ay ay matchs amicaux ñu ngi ñu ngi jouer ay tournois et ça ça les fait progresser et donc ñu féliciter aussi tous les pays qui sont à côté de nous le Mali. qui fait aussi une bonne politique au niveau des jeunes c'est vrai que ni fii bokkuñu ci carré bi mais ñoom aussi avec les centres de formation ils font beaucoup de travail au niveau des jeunes ils ont compris aujourd'hui que pour avoir de bonnes sélections A il faut passer par la petite catégorie les u les u et les u et les gens sont en train de travailler moo mun a alimenter li nga pour Nigéria Gambie lan lay victoire euh, peut-être de la Gambie ou bien Gambie euh, je je n'aime pas les pronostics. mais ma wax euh, li ma bëgg. Gambie laa bëgg mu mu gagné sunu mbokk yi. parce ñoom aussi. Euh, mérité nañu ak liggéey bi ñuy def moment bi parce que y a y a eu trop de du Nigéria. benn moment benn moment. <laughs> ak Ghana pas sa pronostic lan lay nekk Nigéria Gambie pour deuxième demi-finale bi. Euh, lu may lu may gis mooy Gambie moo gën a baax parcours Nigéria bien que le Nigéria reste le géant de l'Afrique. avec ses euh, trophées même si depuis très bien très bien. vraiment mais li ñu yéene rek mooy Gambie Sénégal daje final Sénégal gagné ko. Euh, euh, mu nekk benn dëkk ah bu bu a daje. Mm. alors euh, Babou. Mm. ñu souhaiter bonne chance au coach au sélectionneur de l'équipe nationale junior Malick Daf à tous ses joueurs à tout le staff ñuy ñaan ni mu ko waxee ñu passé demi-finale yi dem ci finale bi pourquoi pas andi li nga xamante ne moom mooy trophée bi mais ñu def ko step by. ay step ñu ñëw nag ci jigéen ñi mhm. ñu gis ne jigéen ñi pendant presque dix ans onze sax euh, dafa amoon benn désert bu metti mais on a nommé un homme à la tête de cette sélection A ñu gis mu ñëw ak toucham ñu gis beneen suuf bu bees ci football euh, féminin bi loolu nag indi benn parcours d'abord ci phase qualificative yi balaa ñuy dem ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ne disputé woon nañ ko fële ci Maroc. effectivement Adja ki nga xamante ne moo di euh, Grégoire Ngom moo def jàngat bi def li nga xamante ne moo di parcours gaynde yi ñu dooree ci li nga xamante moo di préparation dem ci CAN bi dem tamit ñëwaat demaat ci tournoi bi nga xamante ne moo amoon fële ca maanaam ca Cap Vert sunu gaynde yu jigéen jël ko ñu wax na tamit li nga xamante ne di maanaam barrage coupe du monde bi moo amoon barki démb fële liggéey bu mot sëkk bokk na ci li nga xamante ni ràññee nañu ko ci jaar-jaaru gaynde Sénégal ñu toog jiir bu yàgg kenn gisu leen ci dendu Afrique rawatina rek ci àdduna wërngal këpp ndawi Mame Moussa Cissé fësal seen bopp ci kàddoom mu àdduna wërngal këpp loole ci ab jiir bu ndaw seen campagne africaine daanaka am solo lool ñu wone seen bopp bu baax a baax na mu gën a amee dayoo ca Maroc ab satu Mamadou Diallo ak ci naataangoom daanaka sax ci lu ndaw lañu daldi rek foofa ñu wutali rek lii di barrage fu coupe du monde ak place ba ñu fa jëlee waaye laata barrage yi gaynde yi jaar ca Cap Vert daal di rek ñëpp si ak beneenu paraya foofa ca Cap Vert moome sax réew ma ñu daan moo ko dalal di Cap Vert moome noone ñu daal di rek explosé ay statistik ñu gàddu seenu paraya jànnoo ak li nga xamante ni rek moom mooy sas daal di wutali coupe du monde moo ne sax seenuk mbëbët ak i pas-pas bëri woon na génte gile yaakaar bu tas la mujje seenuk année 2022 daanaka sax doon boo xamante ne rek des na ci taarixu réewu ka Sénégal football féminin daal rek am sax beneenub appétit seenub mbëbët ci coupe du monde bile daanaka sax lañu ca xamul woon bokkoon na ci rek ni au niveau dafa ànd ak réalité ma ñoom ñooñee ci kanamu Haïti lajj bu métti lañu daldi lajji loole waral rekk jamono ji lii di coupe du monde bi seeni kër lañu koy seetaanee. merci beaucoup Grégoire Samba mu defal ñu jàngat ñuy fàttali nag ne balaa ñuy dem ci Coupe d'Afrique bi dafa am ay phase qualificative maa ngi koy wax muy éliminatoire yu ñu def bokk na ci match Libéria on se rappelle bokk na ci match aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy Mali mais euh, coach bi ngay ñëw défi yi dafa bëri woon. il fallait que d'abord Sénégal dellu siwaat dellu siwaat balaa ñuy wax une participation à une coupe d'Afrique mooy mu am phase boo xamante ne faw mu jàll ci euh, comment comment vous avez fait par rapport à ce travail là. bon sax dégg naa nga benn nit. non ça peut pas être le travail d'une personne c'est le travail. non mais de toute une équipe. vous êtes la euh, personne morale. waaw donc euh, ñu si féliciter d'abord félicité fédération pour vision bi nga xam ni am na ko ci football féminin. parce que y a de changements. Mhm. man euh, nekkoon naa fii. damaat ñëwaat. bi ma ñëwee gis naa ni am na changement si lu bëri. léegi on a la possibilité de regrouper l' quatre mois ba cinq mois. Mhm. Euh, xale yi nekk regroupement. parce que aussi il euh, y a de choses yoo xam ni ñeneen ñi am nañ ko xëy na ñun amuñ ñun ñu ngi soog a am sélection U17. ñu ngi soog a am sélection U20. mais on n'a pas de championnat U17 on n'a pas de championnat U20. Mhm. contrairement au centre de formation si góor ñi. te góor ñi mun nañu appuyer wu si jàmbaar génération foot Dakar Sacré-Cœur wala mais ñun amuñu loolu aussi au niveau du football féminin. et donc il fallait travailler prendre du temps pour lacune yi nga xam ni xale yi dañ koy indi sélection ñu mun ko résorber. liggéey sur le plan technique sur le plan athlétique parce que dañ doon gis ni dañ daan football ay match contre ay Nigéria ay Cameroun mais après doole nañ ñu ëpp gagné ñu physiquement mu gën a taxaw donc ñu xam lan moo ñu manqué parce que àddina loolu la da ngay xam fan nga toll ak lan moo la manqué ak lan mooy li la euh, xàjjale ak niveau bi nga bëgg jëm donc objectif bi c'était d'abord ñu qualifier waat Coupe d'Afrique ci mm-hmm. diggante bi ñu am tournoi UFOA bi ñu ciy dem c'était pour participer pour nous préparer mm-hmm. mais après on s'est rendu compte que équipe bi am na benn potentiel parce que liggéeyoon nañu et on a battu la le Mali bi demoon Coupe d'Afrique beneen bi 3-0 ah ça a commencé à donner des idées on dit tiens avec cette équipe locale on peut faire quelque chose ñu continuer travailler mais avec une philosophie c'est-à-dire pour moi une équipe il faut que mu am un environnement positif xale yi il ñu am jàmm fi ñu nekk il faut que mu am une vie parce que nekkuñu seen famille pendant six mois soo soo leen brimer encore mais doo am si ñoom dara surtout ay jigéen lañu. Mm. donc soo yow ñëw nga regroupement gis nga ambiance bi nga xam ni moo am suñu suñu nekkul si terrain bi su nekkee si terrain bi c'est du travail c'est du très sérieux mm. mais bu ñu génnee si une famille et vivent bien c'est des amis elles se racontent des trucs dañuy foo daxante foo reereere et ça je pense que c'est une chose bu indi une cette euh, mbir mi euh, et puis ñu xam lan moo leen commencé euh, boole ñu xam ni tey mun nañu def quelque chose après bi ñu dem ci éliminatoire yi on a on a battu le Mali c'était difficile c'est et après ça nous a permis aussi ñu ñu dem sànq on a parlé des matchs amicaux mm-hmm. je vais dire aujourd'hui li nga xam ni moo jox équipe bi benn dimension c'est les deux matchs qu'on a joué contre le Cameroun. contre le Cameroun d'accord mooy bi ngeen di waaj pour dem ci Coupe d'Afrique. parce que dañu dem fekk fa condition Coupe d'Afrique xam nga tey dama lay ni benn élément bu ndaw rek mun na changer. changer comportement xale yi. Mhm. c'est la première fois xale yi dugg ci benn terrain. stade bi fees. c'est la première fois ñu dugg di football di gis seen bopp ci écran géant <laughs> et c'est ça qu'on rencontre la CAN. même si vous avez Euh, on a fait 2-2. Euh, benn match bu njëkk bi. après ñoom ñu dóor ñu. mais euh, Cameroun dóor ñu c' est c' était la norme. Mm la norme et aujourd'hui sur ce match là. moi je aujourd'hui foofu c' est un point de départ important parce que euh, def ñu mener un 0 parce que ñëpp dañu xalaatoon dañuy écraser moi mhm. des techniciens moo dit jarul ngay dem sa préparation nga yàq tu vas une valise ñu dem on prend un but nous on égalise. on marque le deuxième but à la quatre-vingt-dixième minute bi ñuy dugal bii bi euh, euh, kii bi mu ngi génnee six six minutes de temps additionnel mais les filles pensaient que le match était terminé mm-hmm. au lieu ñu concentrer sur match bi elles sont toutes venues sur banc de touche bi pour jubiler avec nous moment bi ñuy reprendre jeu bi il y avait deux de nos joueuses qui étaient encore dehors et on prend une euh, un sur moment boobu et c'est l'égalisation du Cameroun Euh, après bi ñu def évaluation bi j'ai dit aux joueurs je vais pas parler des quatre-vingt-dix minutes je vais parler des six minutes de temps additionnel mhm. parce que foofu nañu foofu nañu war a jànge mhm. bi ñu dugal ñun suñu deuxième but Omar Diallo qui est très expérimenté c'est le préparateur des gardiens mi ngi leen di daw wax nañu dem jubilé ji poto corner opposé déjà là tu vas tuer deux minutes mhm. te arbitre bi munul redémarrer match bi tant que suñuy joueuse ñu ngi dans la zone adverse et j'ai vu à la CAN quand on a marqué un but au lieu que ñëw si banc de touche bi la capitaine est toujours dans le terrain même bu ñeneen ñi di jubiler si biti mm. une leçon d'apprise et pour te montrer que ce sont ces détails là mm. qu'on apprend dans le haut niveau et qui nous permettent de progresser mm-hmm. et donc moi après on a joué contre la Tunisie après ñu commencé gis ni nag équipe bi mi ngi yéeg mi ngi yéeg mayonnaise prendre mm-hmm. et après euh, il y a une famille on a on a travaillé a on a gagné nos deux premiers matchs parce que l'objectif c'était de se qualifier pour la CAN, on l'a fait. Le deuxième objectif c'était de marquer notre premier but en CAN. On l'a fait sur le premier match contre euh, l'Ouganda. On a gagné notre premier match, uh -huh. on a gagné notre deuxième match, on s'est qualifié pour les quarts de finale et après les choses après mais défaite bi Maroc mais mais mais xaaral mais ba bu ñëw. voilà euh, défaite bi Maroc aussi après après dinañ si dinañ si ñëw seen mooy mooy seen troisième match. en phase de nga ju nga expliqué lii yëpp après nga ñëw li nga xamante moo di CAN bi Sénégal pour une première participation si CAN bi Sénégal ak quart de finale qualifié li nga xamante ne moo di barrage coupe du monde bi nga dem joué ko nga ñàkk tamit foofu noonu yow gannaaw maanaam parcours bi nga def qualification coupe du monde ba si barage bi lan nga si jàngee. beaucoup de choses beaucoup de choses énormément de choses. et c'est c'est là où c'est important. mais ñëw si kan bi un peu parce que foofu aussi tiré nga fa expérience. Mm-hmm, mm-hmm. bu bu bu extraordinaire. c'était un retour. personne n'attendait le Sénégal. Mm-hmm, vous êtes dans le groupe A. avec le pays hôte qui avait énormément de chance surtout avec le public moi j'ai assisté à la finale on a vu un un très beau public foofu fi nga xamante ne moom mooy euh, stade euh, Mohamed euh, Mohamed Prince Moulay plutôt ngeen ngeen ngeen war a jouer seen dernier match phase de groupe parce que moment boobu xam nga qualifié woon ngeen pour second tour bi mais il fallait jouer face aux pays hôtes le même scénario fële euh, à Yaoundé ou Douala c'est c'est reproduit mais cette fois-ci fële nga xamante ne euh, moom mooy à Rabat oui euh, c'est vrai que même sur ce match-là nous on avait du public hein et c'est le lieu de remercier vraiment Des la Sénégalais. forte colonie sénégalaise ouais. on, on on était comme si on était au Sénégal mm. Ils sont venus en, en masse et ont supporté l'équipe. Mais sur ce match-là, nous, on était déjà qualifiés. On avait des joueuses qui étaient sous le coup d'une suspension. Et nous, notre objectif, c'était les, les, les quarts euh, objectif bi moo doon quart de match boobu dafa am lu bëri lu si xew dañu yeew minuit nañ may woon ne ma sa ñetti joueuse dañoo am Covid. ak sa ñetti membre staff médical mhm. et ça ça complètement dafa changé lépp ci équipe bi parce que tey ma expliqué nit ñi eh, staff bi ñett ñooñu jigéen ñooñu ñoom ñooy yaayu xale yi mhm. c'est-à-dire xale bu am problème foofu nañuy dem di waxtaan pour wax ñoom seeni problème parce que am na loo xam ne man mun ñu ma ko wax en tant que coach mhm. parce que góor laa et puis man maay présenté autorité bi foofu nañu dem waxtaanee donc loolu amul donc bi ñu ñëw ci terrain bi on a changé j'ai j'ai pris sur moi ñu tourné équipe bi indi ñeneen ñi nga xam ni football ñu woon pour ñu am temps de jeu pour récupérer ñeneen ñi nga xam ni dañu dañu jouer ñaari match parce que dañu jouer ñun le trois mm -hmm. waat le cinq 5 ouais. donc ñaari match yi avec le effectif donc il fallait ñu noppal leen euh, ñi am carton ñu génne leen ba pare cadre Covid yi ñëw dal la si et malgré ça Euh, match bi euh, on n'a pas été ridicule mm-hmm. parce que 1-0 la ñu la ñu la ñu Maroc dóor devant son son public. Mm-hmm. et li li ñu gagné ci match boobu moom mooy équipe bi yëpp football nañu. parce que li gën a metti ci compétition la au niveau tey jii mooy joueurs yi joué yi nekk ci équipe bi te joué wuñu mm-hmm. ci temps boobu noonu da ngeen gis ni dañuy démobiliser wu dootuñu bokk donc soo leen dugalaatee ñu football ñoom ñëpp. tu regagnes ton groupe. Mhm. la gestion du groupe compétition bu gudd dafa jafe ci entraîneur dafa jafe il faut donc tout faire pour mobiliser tout le monde. moo tax des fois nga gis un entraîneur mu am un bon élément. un joueur qui est excellent. Mmh. mais du ko du ko jël des fois les gens ne ne pas comprendre. parce que groupe boobu. Ah, mais il faut il faut il faut bon il faut prendre les meilleurs. parce que c'est des choix à faire par rapport à des trucs mais il faut gérer le groupe tu as un groupe on a un groupe de 26 joueuses ouais. et dans les compétitions majeures da ngay gis ni 15 à 16 joueurs ñooy joué mm-hmm. bon ñeneen ñi après au fur et à mesure ñu joué ñu bañ a da ngay gis ñu démobiliser wu par rapport au groupe même dans les très grandes équipes ça ça on l'a on l'a vu avec euh, Cristiano Ronaldo mm. même euh, si coupe du monde bi ak yeneen joueurs yi joueurs yu mag a mag a mag mm. ça veut dire que ni c'est très difficile moment boobu ñu nekk ça nous permis uh-huh. ñu amaat ñooñu et puis le groupe ressoudé waat pour objectif beneen bi bi nga xam ne moo doon jéem a gagné quart de finale bi. mais quart de finale presque coach da ngeen ci tegoon loxo. <laughs> waaw je je je veux dire demi-finale yi. waaw ba tey quand je regarde ce match là. vous avez des regrets. beaucoup de regrets parce que soixante euh, dix minutes de jeu on a maîtrisé le jeu. Mhm. moi je regarde encore ce match là cent vingt minutes amul fenn fen fen fen fu nous en inquiété. Mm -hmm. on a maîtrisé ce match. après maintenant sur une erreur technique due à une déconcentration li ma lay wax environnement au niveau benn moment xale yi à la soixante dixième minute. xalaat nañ ni c'est dans la poche. ñu ngi demi-finale déjà et se voyez. ñi ngi coupe du monde. ñi ah, ngi parce boo demee demi-finale automatiquement da ngay qualifié aussi coupe du monde oui. enjeu bi aussi. oui et loolu li koy indi c'est la jeunesse. mais est-ce que wax est-ce que waxtaan nga ak ñoom maanaam ci aspect boobu laataa ñu dugg fi nga xamante moom si est-ce que ko doon yaa ngi mais loolu mooy liggéey bi tous les jours. <laughs> loolu mooy liggéey bi au quotidien mais après entre li nga li bëgg ñu def parce que il faut xam ni équipe boobu noonu bi ñuy dem. Euh, mooy li li nu dalaat bi ñuy dem nii rek Haïti on a 17 joueuses qui jouent dans notre championnat local ici et 6 professionnels. 6 6 expatriés. te après ce groupe sax am na ñu ci dem ba finalement signé. Euh, signé mais on avait 5. ñoom après Mbayang si la signé. Safietou aussi si la signé. mais tey boo ko jëlee par exemple ñu comparé ko ak Haïti. Haïti joueurs am yëpp. ñu ngi championnat de France Ligue 1 Ligue 2. ñu ngi Canada ñu ngi États-Unis tout so Cameroun ñëw nañu ak ñun bi ñu demee fële si tournoi bi Cameroun sept joueurs ñoo fa nekkoon sept ñoo jugee Cameroun décide bi yëpp États-Unis ni ñu jugee Canada. France euh, dans France Italie en Angleterre ce n'est pas la même chose. donc moo tax bu bu wax jàngat bi c'est important ñu xam loolu ban niveau nañu toll ak suñu niveau joueur. Mm-hmm. tey suñu championnat tey. il y a des matchs ah a euh, quatre ou cinq équipes yu yu surnagé. seen match day metti mais quand sur un match équipe gagne 17-0 tu peux rien apprendre on, sur ce a une grande différence. non sur le plan physique. amul benn effort. sur le plan technico-tactique amul benn effort. sur le plan mental 17-0. eh bien amatul amatul benn pression de match. alors que football loolu la. adrénaline boobu. Mm-hmm. et là on l'a senti. tey yaa ngi wax jàngat par exemple le match bi ñu joué contre Haïti c'est la première fois que notre équipe jël quatre buts sur un match à la CAN on a joué cinq matchs on a pris que deux buts. que deux buts. et pourquoi minutes c'était 0-0. ah ñu bëri ñu. 44e minute 0-0. on prend le but sur balle arrêtée au mauvais moment. si si 45e minute. Mm-hmm. sur concentration lépp pour te montrer que ni euh, euh, au niveau dafa am ay détails joueurs yu Haïti yi bi nu poussé pousse pousse mënuñu ñu indi diversion ci corner boobu soo gisee dañu indi xuloo ba mag suñu gardien kërëb kërëb xale yi xuloo fa kërëb kërëb ci biir pataxoo boobu nañ dugal ñoom seen biir donc mooy mooy mooy dañ lay nax ci benn affaire bi ñu ñëwee deuxième période tac tu prends le deuxième but encore ce bal arrêté mhm. et ça coupe carrément les pieds des filles. match boobu. 45e minute. ba 65e minute si nañu jël 4 buts. on a pris les 4 buts en 20 minutes. waxuma sur un match de xam nga su ma ko jëlee sur un match day gudd. sur 20 minutes entre la 45e minute et la 65e si nañu jël les 4 buts. parce que ce que les les les après se sont senties. Euh, elles ont compris qu'elles ont fait des erreurs. sànq maa ngi gisaat but yi am na si deuxième but bi bal boo xam ni. si euh, euh, on si on peut euh, le le match mooy reportage yu Grégoire bi. oui le deuxième but bi bi dañu dóor corner ñu dégager ko. Euh, on est ñu remonté si porteur bal bi mais pas suffisamment mais ki ki yor ballon bi am na possibilité passe ñun dañ leen jàngal que quand le joueur n'est pas. suñ ko marqué wu ñun loolu un joueur non couvert on doit gérer la profondeur et, et non pas gérer la profondeur sur cette action là euh, tu vas voir mhm. cinq joueurs haïtiennes contre notre gardienne oui c'est vrai et c'est inadmissible mhm, mhm. dans tes hauts niveaux ça c'est un cadeau euh, su su su image bi ñëwaatee si bii bi sur le. benn benn gën a la avancé tuuti ci récit euh, Grégoire bi. sur le deuxième fii tournoi UFOA A bi la c'était au Cap Vert da ngay da ngay gën a avancé waa tuuti rek euh, foofu la tournoi bi nga xamante ne moom mooy barage bi amoon fële ca ca ci Nouvelle-Zélande euh, balaa ñuy euh, balaa ñuy ndar moo tax ma ne la c'est c'est le haut niveau. dafa am ay. voilà c'est là voilà le premier corner mi ngi nii regarde Elles sont bien positionnées. Regarde, deuxième but. Regarde, top, là, là, elle arrête. Cinq, arrêté, cinq, arrêté. Cinq, cinq joueuses contre notre gardienne. Ça, c'est inadmissible. Mais, mais, mais est-ce que loolu mën nañ ko mën nañ ko maanaam mën nañ ko maanaam euh, grawul quoi d'accord au niveau la mais peut-être yaa ngi koy wax rek say wax maanaam 17 joueuses yoo xamante ne ñu nekk Sénégal fii moom nga yóbbu est-ce que tamit expérience boobu tamit moom moo moom moo feeñ fii nii. mais manque d'expérience moo indi lii ah parce que lii dans le haut niveau. ça se paie ça, ça se c'est une règle élémentaire. absolument yore ballon bi. Mhm. ñu leen di jàngal su yore ballon bi. am na possibilité jouer long. Mhm. parce que kenn marqué wu ko. Mhm. on va gérer la profondeur. c'est une règle élémentaire. elles savent le faire elles le font souvent sur cette action elles ont oublié de le faire il y a cinq joueuses contre notre gardien. et pourtant euh, euh, euh les grenadières il y avait kenn ci seen défenseuses elle avait attiré l'attention des filles. Elle, elle, a, elle a dit que pendant 15 ans, ces, ces haïtiennes-là, elles jouent ensemble. Donc, ce qui veut dire que c'est un bloc voir à maintenir. Mm -hmm. Et puis, nous avons ben, ben leader maintenir aussi qui est, qui, qui est excellente. Mm -hmm. euh, mais euh, très rapidement, problème de déficit, voir lan lan mooy perspective yi coach très rapidement. balaa ñuy ñëw nag. yaa yaa la prochaine CAN déjà CAN CAN CAN dafa dafa war a ñëw déjà def naa ni ñu ngi ko jàpp euh, janvier. 2024. ça veut dire dans neuf mois. Mhm. ça veut dire que léegi léegi rek di nga dégg euh, éliminatoire yi. Mhm. donc ñu ngi siy liggéey. li ñu gis li nga xam ne man moom laa jàpp si tournoi bi mooy il faut ñu am ay match au niveau. pour mën a yéege bi. Mhm. avec yan sélection des sélections africaines parce que fi mu ne nii peut-être l'objectif c'est de figurer ci carré d'as bi ou bien pourquoi pas dem ba finale comme moment bi gis nañ Maroc. gis nañ ki nga xamante ne moom mooy Afrique du Sud euh, Cameroun mi taxawoon mi ngi mi ngi mi mi ngi wàcc avec avec quelle formation pour avoir cette fois-ci li nga xamante ne moom mooy cette assise africaine avant peut-être de se projeter pour la pour la pour la prochaine coupe du monde pourquoi pas. il faut qu'on de grandes nations. que ce soit en Afrique wala mu doon feneen d'accord il faut que ñu football ak équipe yu mag yi gis nga Haïti avant ñu football ak ñun ah ak euh, Mexique. Mhm. ak euh, seen match amical contre Portugal 5-0 leen Portugal dóor mais jàng nañ si. lu leen mhm. permettre ñu gagner ñu. Mhm. c'est-à-dire il faut que ñun ñu jouer ces nations la beneen bi tey jii ñu ngi commencé def répertoire xale yi nga xam ni ñëpp ñu ngi euh, c'est des nu ñu koy woowee des national yu nekk championnat France ak États-Unis ñu ngi leen commencé répertorier pour xam ñan ñoo mën a ñëw pour accompagner. ko pas quel quel bien quel jour. pour le Sénégal pour le Sénégal et y en a on man semaine bi yëpp am na ñu ma si gis ñu ma si woo. Mhm. ñu xam ni elles sont intéressées parce que ñu ngi commencé gis aussi que ni mi ngi progresser. ñu ngi ñeme ñëw. Mhm. donc aujourd'hui il faut que ñun ñu renforcer par ces joueuses la mhm. et ñu def en sorte que ñu fi ne mën a dem il faut que ñu dem. ñu fi nekk ci championnat bi fii parce que dañu am ay xale yu bëri loolu wax nit ñi xamuñu ko. tey suñu deuxième gardien 16 ans la am. Absatou Malade Diallo wax ji li ñuy wax wax wax yëpp 17 ans la. xam nga 17 ans si haut niveau. Mm-hmm. c'est encore très jeune même si elle a des qualités. mais il lui manque de choses. Mm-hmm. loolu li koy permettre tey mooy mu am un bon club en Europe. dina permettre mu jàng leneen euh, su ñëwaat dina apporter lu bëri. absolument pour l'équipe nationale. tey Marème Babou qui était capitaine. qui est mm. aussi tuée elle a signé à Metz. signé na juste après le tournoi bi xam naa ni dina dem donc voilà ñu politique bi loolu la faire en sorte que ñi fi nekk ñu fexe ñu ñu si bëri dem ñe ñi nu gis nag ñu nekk fële baax ñu mun leen indi fii pour que ñu ñëw liggéey ak ñun. maa ngi ci liggéey pour l' effectif et faire en sorte que date FIFA yi ñëw ñu jëm ci am ay match amicaux. alors euh, très rapidement on s' est approché aussi de nos confrères. Mhm. ñoom ils avaient couvert euh, la Coupe d' euh, ñu jël seen réaction ak peut-être benn commentaire coach dugg léegi très rapidement ci deux trois minutes ci beneen papier bi nga xamante ne jëmb defal nañu ko par rapport au vote du sélectionneur des Lions Aliou Cissé mu andi benn tool jàngat biñ ciy mais balaay loolu la réaction de nos confrères qui avaient couvert la Coupe d'Afrique des Nations effectivement Dia ñoom daal wax ji benn la nee euh, maanaam euh, ñi nga xamante moo de staff technique bi ñu ngi def liggéey bu maanaam bu mucc ayib léegi nag dañuy wax ñi nga xamante ñoo di fédération bi coach yi mu ngi koy nga xamante ñoo nekk bitim réew ñu mën a apporter lu nga xamante moo di équipe ñu xool seen moo ne en reconstruction comme euh, Pam bi jàngat ko xool li nga xamante ni li gën a baax moom lay yóbbu mais pour man dafa war a garder déjà ossature bi war a itam xoolaat ay ay yeneen booy parce que au Sénégal peut-être championnat bi développul mais y a de yoo xamante ne c'est des pépites donc euh, le, le travail déjà va se commencer à niveau ñu xool li nga xamante ne kan bi lan moo ci doxul benn euh, on n'a pas été euh, ridicule euh, les joueuses savent bien jouer au football et que gis nañ ne comme am nañ ay par mal d'expat euh, d'expatriés e que jàngal nañ bu baax a baax ci kan bi ndaxte boo xoolee kan bii nii ni joueuses yu bëri ñu bëri ñu fi ñëwoon bi moo nekkoon seen première ay 2 3 4 lañ fi amoon ñoo xamante ne bi bi moo nekkoon seen deuxième kan tey soo xoolee 2012 nga dem ci benn CAN 3 matchs 3 défaites entre 2012 ba 2022 nga lu bëri xew nga ñëwaat ci ci niveau bi peut-être ñu bari sax Sénégal la ñoo yaakaar dañuy ñëw rek doxantu. dem mais man vraiment li ma gisee équipe bi j'ai pas été surpris parce que maa ngi doon suivre euh, depuis quelque temps xam naa yenn joueurs yi euh, tamit euh, seen taxawaay mais tamit ci esprit bi nga xamante ni ñoom indi nañ ko ci ci CAN bi dominer seen groupe et puis gis nga ñëw quart de finale c'est dommage ñu ñàkk contre Zambie mais pour man li ñu gën a ñàkk loo xamante ni peut-être suñ ko amoon li doon plus pour ñun mooy milieu terrain boo xamante ne ay relayeuse dañuy doon. sur le plan technique gis nañu benn yokkute bu baax a baax a baax ci joueurs yi parce que d'habitude compétition yu mel nii coupe d'Afrique ak surtout jigéen ñi dañ doon gis euh, ay décalage dañuy gis équipe yu mag ak équipe yu ndaw mais mais dañoo gis en général équipe dañoo xaw a tolloo doole. deuxième remarque bi mooy équipe yu jógee ci suñu gox muy euh, Afrique de l'Ouest dañoo ind indaale doole. mu mel ni Sénégal mu mel ni euh, Burkina Faso euh, mu nekk luy wane ne dañ gaay yooyu ñu ngi liggéey bu baax a baax ci wàllum football jigéen ñi. ten retour ci CAN bi après dix ans d' absence ñu gis si benn travail boo xam nga xam ne nii fédération sénégalaise mi ngi koy def ci wàllum football jigéen ñi euh, ñu gis si d' excellentes joueuses ñu yaakaar ne équipe bi nii buñ ko tàttanee ñu continuer ci liggéey bi mun nañoo dem sax ba qualifier li nga xam ne nii moom mooy coupe du monde. voilà c'était la réaction de nos confrères euh, foofu euh, ca Maroc euh, jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon couvrir Coupe d'Afrique bi coach benn commentaire très rapidement en quelques secondes. waaw continue liggéey bi. le travail continue c'est l'apprentissage du haut ngi jàng. Mhm. ay jéego par jéego la. bu ñu demaatee nañ li objectif bi mooy ñu fexewaat demaat Coupe d'Afrique. Mhm. parce que dinañ con jéem a consolider li nga xam ne defoon nañ ko donc objectif majeur bi tey jii loolu la parce que aussi balaa ñuy wax le plan mondial nañu jéem a asseoir suñu suprématie fii comme ni ñu ko defee si FOA bi mhm. wane suñu bopp foofu noonu la ñu war a commencé wane suñu bopp en Afrique tey ci CAN bi on était cinquième ou sixième équipe fexe mbii nu mu duggee si carré bi peut-être dans deux ans trois ans avec cette équipe jeune là ñu jéem a gagné cette coupe d'Afrique là ba pare dem coupe du monde dem coupe du monde euh, étape par étape pama tey ci tënk rek <laughs> waaw ci tënk euh, mais damay euh, jaajëfal Mamoussa ak safam on revient pour man une étape a été franchie. Mhm. on a été dans l'antichambre de la coupe du monde et c'était pas évident c'était pas gagné euh, li may wax nag mooy damay saluer ñaari pionniers muy càmpu Corée di liggéey liggéey boo xam ne bu am solo la équipe nationale bi presque mun naa lu mat ay six joueurs yoo xam ne jaar nañ ci loxoom. Euh, Ablaye Fall le président de la Ligue de Diourbel avec AS Bambey également am na ñeneen ñu mel noonu ñu def liggéey boobu Sénégal je pense que ni ko waxee. Euh, décomplexé nañ le féminin fi mu nekk ñu ngi viser le haut niveau et ça c'est un travail qu'il faut faire Haïti dañ ko tàmmoon di dégg ci ay crise ay rébellion ay guerre ay séisme et cetera mais ñoom ñooñu njëkk ci football féminin te comme ñu ko waxee seen joueurs yi nekkuñu Haïti kenn ci ñoom joué wul biir Haïti France États-Unis Canada te États-Unis mooy top top mondial bi fu mu nekk nii donc nga perdre devant une équipe boo xamante ne ñooñu lay forcément dafay am loo xamante ne Euh, dina ko jàngat nañ ci am na ci mhm. loo xam ne dal na leen euh, duñu duñu dalaat tu parlais de jeu de position mhm. et on prend un but sur un exercice similaire boo xam ne yaa ngi koy répéter tous les jours mhm. cela ba dire que ne au fur et à mesure ñuy dem dinañu dem ba euh, am comme ni xale yu góor yi toll xale yu jigéen yi incha allah nañ dem foofu. d'accord yaa une bonne dynamique ñun suñu xel daal. mais merci beaucoup alors très rapidement ñu ànd ak jëmb mu ñëwaat ci polémique bi nga xamante ne euh, votu sélectionneur euh, équipe nationale A andi na ko mais li jaaxal nit ñi mooy on s'est intéressé seulement vote bi nga xamante ne ci joueurs yi la ko def. parce que vote bi aussi ci ñett la woon ci joueurs yi euh, ci entraîneurs yi ak euh, ci gardiens yi lu waral polémique bi est-ce que amoon na raison d'être Jëmm Mbaye a posé la question. effectivement Adja euh, loolu nag mu ngi amoon vote bu ñu voté li nga xamante moo di the best mooy xamante moom la ñu génn waaye kii di Aliou Cissé dafa def maanaam votam mu jiital ki nga xamante ne moo di Mbappé teg ci Hakimi teg ci ki nga xamante moo di Sadio mu nekk coow lu bari ay ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi jàngat bi nga xamante ne kii di jëmm def benn fan si weeru février gi ñu weesu la confédération africaine de football di CAF amal tirage au sort poule yi war a jongante ci coupe d'Afrique des nations bi ñu jagleel joueurs yi seen at rombagul fukki at ak juróom-ñaar lu ni mel doon xewee sa Caire sa réew Égypte Sénégal nekk finaliste ci édition bu mujj bu UFOA war na tase ak. Algérie fenek yu ndaw ñi moom avantage bi ñu am si boobule match moo di ne si seen dëkk la ñu koy joué gannaaw tirage au sort bi ki di Reski Rehman di sélectionneur bu équipe nationale cadette bu Algérie moom nëbbul bëgg-bëggam lim bëgg mooy fexe ba qualifié si coupe du monde ba war am sa Pérou atum 2023 ba noppi jël raw gàddu gi foofe sa Alger seetlu gi nag moo di ni gaynde yu ndaw yi ñi ñu war a taseel su ba ñu lajjee woon sa kanamu Gambie bokk na ci vote yi ëpp coow mooy bu Aliou Cissé mi di tàggat gayndeyu réewu Sénégal ñu bëri nag di ŋàññ tànneefam ni mu ko tëddalee jiital si ki di Kylian Mbappé di finaliste nekkit meilleur joueur bu coupe du monde bi ñu weesu dugal si lu tolloo ko juróom-ñetti but si ñaareelu place bi Achraf Hakimi la tànn nekk demi finaliste bu boobu la jongante coupe du monde Sadio Aliou Cissé moo ngi ko si ñetteelu place bi ñu bëri gis ne du dëgg du yoon Sadio Mané moomee nga xam ne bi coupe du monde bi desee ñaari ay bés la am ay gaañu gaañu ba bokkul sa boobu la jongante numéro 10 bu équipe nationale bu réewu Sénégal ndax sax yoon la woon mu bokk su doon xëccoo boobu la raaya ndax joué wul coupe du monde te coupe du monde mooy ñaareelu jongante bi gën a mag si àdduna wërngal këpp mu di lu ñu war a laaj ndax boo xoolee si atum coupe du monde la ñu nekkoon te ñi ñu jiital ñëpp bokkoon sa boobu la jongante beneen laaj ngi nii ñu samp mooy lan moo tax tànneefu Aliou Cissé ñeent joueur yi rek moo indi coow te Aliou Cissé amal yeneen i vote bu mel ni bu meilleur entraîneur di sélectionneur bi gën a xarañ. Aliou Cissé jiital sa mbir ma kii di Walid Regragui teg si Lionel Scaloni mujjee ak Didier Deschamps si di soxal nekk meilleur gardien Aliou Cissé doomu Maroc bi di Yacine Mabou la jiital teg si Emiliano Martinez mujjee ak Thibaut Courtois ñi xaarandi nag Aliou Cissé andi ay leeral. si anam googee mu defee tànneefam li am ba am moo di nii coow li wunniwaat na beneen di baax bu ñu yàgg posé mu di yan anam la ñuy tëddalee vote ndax dañoo war a voté xol wala rek dañoo war a jiital xel bu ñuy àttee athlètes si seen wàllum performance li nag di polémique buy am lu matul benn weer kottu des si ñetteel ak ñeenteelu bëccëg éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2024. gaynde réewu Sénégal am si ñaari match yu ama am solo jàpp leen ni bu ñu amee ndam si kanamu Mozambique Sénégal dina qualifié si boobule Coupe d'Afrique loole nar a nekk pàcc bu ama am solo si mbébét gi nga xam ne ni réewu Sénégal am na ko mu di rek jëlaat Coupe d'Afrique des Nations. merci beaucoup Diome mbay muy ay laaj yoo am solo yoo samp euh, balaa ñuy jox euh, suñuy invité ak dernier tour de table bi ku ci mel ne docteur Mohamed Gando consultant la yàgg nañ ko gis ci plateau yi il était l'invité de la matinale vendredi bi ñu génn am na nag ay kàddu yu mu yëkkati dénk ko Grégoire Sambangom moom dafa ne du ki nga xamante ne moo di Aliou Cissé mais mais mais taxaw teewul nee na mënul gis ki nga xamante moo di Achraf Hakimi nekk ci kaw Sadio Mané Sadio Mané mi nga xamante ne daa jël Coupe d'Afrique te Achraf jëlagul benn benn trophée ñu xool réaction personnellement Aliou du du ma critiquer lu muy choisir par contre euh, mun naa nekkuma d'accord ak moom parce que man ma dinaa def peut-être Messi ma laay def en premier Sadio xëy na dinaa ko def deuxième du ma def Achraf Hakimi ci kanamu Sadio lu tax parce que dama bëgg aussi euh, Coupe d'Afrique bi am importance Sadio dafa gagné Coupe d'Afrique nekk meilleur joueur Coupe d'Afrique donc ça c'est important que ñu wane aussi monde bi que Coupe d'Afrique am na ay entraîneurs européens certains classements loolu la aussi Achraf Hakimi lu tax mu mu dafa war a nekk aussi ci classement bi bu leen fàtte Maroc tey moom moo nekk première nation africaine demi-finale coupe du monde ça ci équipe bi donc xam euh, kenn gudd kenn moo gën Aliou lan mooy importance Sadio ci équipe bi donc je pense que choix bi la choix sur critère sportif tey tey Aliou xam na que Sénégal Sadio dépendant Sénégal ak Sadio Sénégal sans Sadio c'est pas la même chose gis nañ ko ah, nañ ci coupe du monde bi euh, ça c'est très important moi je pense que ça soit Sadio wala Aliou ñoom dañu dépasser débat bi personnellement dama bëgg ñu arrêter débat bi ñu ñu ñu bàyyi ko noonu je pense pas que Aliou lu mu teg Sadio troisième position maanaam pour moom Sadio ne nekkatul joueur bu mag wala wala amul importance pour voilà ma doon gis-gisu euh, docteur Mohamed Gandour ci li nga xamante ne moom mooy euh, polémique bi euh, est-ce que jaroon na ko papama ci ci ci tënk balaay pexe di ñu génne ci ci ci plateau bi Kylian Mbappé on l'a vu mu mel ni dafa am réponse bu mu indi ndax hier il a marqué son deux cent deux cent unième but ce qui fait de lui le meilleur buteur du Paris Saint-Germain de toute l'histoire du club français il n'a que 24 ans mu jël équipe am porté ko qui est la France qui était championne du monde mu dem fi nga xamante ne moom mooy final ñu gis triplé bi mu dugal jëm mi ngi koy wax meilleur buteur de ce tournoi le Maroc mu briser le plafond de verre pour le pour, pour le Sénégal ñu nekk ci année coupe du monde mu nekk jëm mi ngi koy wax deuxième compétition la plus prestigieuse au monde donc bu ñu nekkee ci année coupe du monde naturellement peut-être bu ñuy voter ak xëy na liste aussi parce que bu ñu fàtte ne FIFA dafa am liste boo xamante ne moom lay établir jox ko les votants. et sur cette liste il ne figurait que Sadio Mané comme comme comme sénégalais est-ce que jaroon na wax bi yëpp. Euh, benn boroom xam-xam bu tudd Luis Aragon dafay wax ne deux deux interprétations je choisis la plus généreuse il faut pas que cette affaire là nous divise mm. restons dans notre manko lu munti am mooy Aliou parce que après dafa am ci groupé ah. groupé am na pas mal de ci oh, réseaux sociaux yi. comme toujours les gens ont parlé def yenn interprétation yi fii mu ne on fii mooy dëkk wax sa xalaat. ci loo xamal loo xamul pour man cette polémique la elle est inutile ça n'a aucun sens. Euh, kenn mënul xam dans la tête de Aliou qu'est-ce qui s'est passé en votant le vote il peut être objectif comme il peut être subjectif mais moom dafa am ay critère peut-être yu tax. peut-être bañ nañu reprocher ko da nga def un vote subjectif peut-être moom moo tax il a mis ak ah, mais moom xam na ne njariñ bi ko Sadio Mané amal mi amalu ko ko Messi amalu ko ko Mbappé amalu ko donc mu def ko numéro un mu terewul saajo moo nekk ci xolam parce que Sadio dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo forger histoire am pour man polémique bi nañ ko jël gas ko suur vraiment c'est une polémique qui nous divise amaluñu benn njariñ du tax ñu changer waat le cours des choses te te euh, Aliou Euh, sincèrement euh, ku ne xam na ne premier soldat numéro un Sadio Mané la. loolu moom lu lu on connaît l'histoire entre entre l'entraîneur et mais coach dernière question <laughs> balaa ñuy génn. waaw gis nga man euh, damay jox sama xalaat. waaw waaw ci loo xam comme ngeen kii waxee Pape Amal waxee rek. Ah, ah. njariñ bi nga xamante amal na ko équipe nationale. Ah. moo nekk si xolu Aliou Cissé man jàpp naa ni bu ma doon voté Aliou Cissé man Aliou Sadio Mané la war a voté man. comme que ñoom ay compatriotes la. gaynam la xaritam la Sadio Mané équipe nationale mu joué ak saa Sadio Mané joué ñu gis li nga xamante moo di différence bi Eto'o wax na ko fan yii rek yi dañu voté pour les africains coach. waaw euh, une équipe euh, qui doit aller vers des éliminatoires troisième et quatrième journée très déterminante pour composter leur ticket on vient ak benn polémique boo xamante ne warul na voté waru woon voté pour quelqu'un aussi il faut ñu reconnaître ko qui n'a pas participé à cette coupe du monde et c'est sûr que choix bi FIFA The bi coupe du monde bi dafay dafay déterminant mënul mënul mun nous sommes dans une année de coupe du monde je suis pour en parler parce que moi, moi j'ai voté pour le football féminin j'ai voté euh, si FIFA bi pour euh, euh, la CAF euh, benn problème mooy est-ce que c'est un choix de cœur ou c'est un choix. sportif sportif. il faut ñu xam. parce que aussi vote yi day génn à travers le monde il faut que nit ñi xam ni il faut que ñu ñun ñun am na lu ñu bëgg mais comme li nga wax tey dañu nekk ci wàllu manko pour ci ndam li et en tant que sélectionneur Aliou li koy dal xam naa ko. Mm. nos choix vont tout le temps être contestés. tant nit ñi xam lan moo ko laal mais ça ça va avec notre métier je pense que aujourd'hui mm. et ñi ngi wax li mais Aliou il est focus dans son équipe il est focus sur ces matchs je pense que c'est ça le plus important qu'il nous qu'il nous qu'il nous fasse gagner ces matchs là qui sont importants pour nous pour que ñu gagner du waat CAN loolu moom mooy objectif bi je pense il faut appeler tous les Sénégalais à ça et je pense que le le la là il est important euh, y a a am na yoo xam ni y a des choses qui sont importantes il y a d'autres qui sont plus importantes. Mm-hmm. nañu dem si vers des choses yi nga xam ni ñun ñëpp daf ñu daf ñuy boole. tey jii ñun ñii ñun ñëpp kenn gënul bëgg sa mborom Sénégal. donc tey jii nii eh, kenn gënul bëgg sa mborom Sadio Mané ñun su c'est euh, notre héros quoi héros <laughs> ñun ñëpp bëgg nañ ko mais tey choix la. et tubaab moo wax ki ki choisir. éliminer waaw léegi nag euh, Aliou bu teewee. je pense que dëjëm kenn du ko joyal moom su ko laajee dina dina dina wax nit ñi lu tax loolu. d'accord donc donc coach ñi ngi ñi ngi samp laaj jëmale ko si yow ñi ngi xaar aussi ay ay éclairage mais mais mais mais comme vous dites je pense que euh, li nga xamante ne moom mooy essentiel bi du du du li ñi ngi jëm ci match yoo xamante ne yu am solo Sénégal bu conserver waa son son son titre continental euh, y a vous euh, les les les sélectionneurs naka la ñuy def. pour gën a booster wàllu management fédération gën leen jàppale gën leen gën leen dëgëral euh, Aliou Cissé bi ñu revaloriser salaire am yàggul mais aussi ñi ngi xaar ñu defaat ko mu wàcc ci yéen wàcc ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy seeni seeni adjoint ci seen ci ci seen staff technique ba nga xamante ne un jeune bu jógee ne bëgg naa nekk Sadio Mané kenn dina jóg ne man bëgg naa nekk aussi Mame Moussa Cissé parce que je trouve que il vit dignement ci li nga xamante ne moom mooy liggéeyam en tant que technicien. je pense que waaw kii bi <laughs> te te ñoom mënuñu wax ay sénégalais lañ. dañuy dañuy dund ay jafe-jafe dañ ñun dañ leen di critiquer ba pare ñuy dund ay jafe-jafe c'est vrai que conditions yi amélioré wu na mais on attend aussi la fédération ci loolu mu gën a jàppale ñi nga xam ne ay doomu sénégalais lañ mënuñu wax mais ñun aussi mun nañu mun nañu relayer li nga xamante ne moom mooy information bi on pense que ay chantier la yoo xamante ne on attend le président de la fédération sénégalaise euh, de de de football euh, coach boobu moom maa maa leen defal plaidoyer boobu kàddu gu mujj gi. <laughs> waaw di remercier euh, ñi nu seetaan di leen mm-hmm. remercier pour invitation bi oui. c'était un plaisir de venir partager cette expérience là mm-hmm. ñi nga xam ne dund nañ ko pour Sénégal ak ay doomu Sénégal nit ñi xam fan nañu toll mais ñu jàpp ni rek dans la vie tout est processus. Mm que tey li indi Coupe d'Afrique bi Sénégal en deux mille vingt deux dafa commencé woon deux mille ak ñoom Sadio Mané ñuy dem tey mu dox suba du dox. des Jeux olympiques. des Jeux olympiques. d'accord équipe bi di màgg di jàng si dans la compétition. avec le même sélectionneur ba un moment avec le même sélectionneur mm-hmm. togg bi ñor xom ñu jël ko. et amaat nañ possibilité yàlla dimbali ñu amaat ko. ci même processus boobu nañu war a nekk avec les filles àddina dara juddul sotti dafay jaar par ay étapes et voilà et quand je parle d'apprentissage euh, nañ nañ ko comprendre noonu pour moi je humblement je dis que la marche était trop haute pour nous fi nu dem parce que gis nañu mhm. tey ñun fi nu toll ak li nu séparé au niveau bi ñun loolu nañu woowee écart de performance ci loolu nag ñu ngi ciy liggéey. Mhm. parce que gis nañu lan moo ñu manqué si wàllu organisation lan moo ñu manqué ci type de joueuse bi ñu war a am lan moo ñu manqué ci match amicaux yi ñu war a am je pense que yooyu yëpp bu ñu ko boolee euh, mettre encore l'équipe un peu plus en chantier cette équipe là peut nous valoir des des des résultats dans dans le futur euh, je, avec moi ça peut avec un autre mais ñu xam ni football féminin bi dugg na. te incha allah eh, dafay jëm kaw rek nañ nañ ko accompagner tey moom mooy eh, ñëpp a ngi def yenn résultats yi moom jege na mais bu ñu ko gënee jàppale je pense que nii dina indi résultat yu. qu'il y ait une discrimination comme euh, comme on dit comme euh, comme le président l'a fait avec euh, le Beach Soccer. voilà merci merci beaucoup. bu baax merci surtout ci cër bi nga xamante ne jox nga ko. Euh, sport euh, sur 7 euh, jóge Thiès ñëw fii uniquement pour l'émission pour après delluwaat fi nga xamante ne moom mooy Thiès Papa Mar yow tamit kàddu gu bu njigi merci beaucoup yow tamit yaa ngi jugee ba Mbour pour ñëw uniquement pour servir les téléspectateurs de la CTV merci beaucoup. mais merci beaucoup nous sommes des passionnés de sport lii c'est la passion de nos vies individuellement considérées. Mm-hmm. mais man lu may def rek mooy. invite bi nga xam ne président de la république wax na ko bi ñu gañee CHAN bi ak bi ñu gañee CAN bi que vraiment ñun acteur football bi autour du ministère des sports ñu mën a jël réforme yi nga xam ne war nañ ko mën a def mm-hmm. ba suñu championnat local bi jaare fii dem ñu wax état ne ko li nga bëgg pour ñu def ko lii la ñu am lii la ñu am lii la am nee naa na ñun africains yi ci football ci sport rek la ñu mën a concurrencer les pays du G20 ou du G7. d'accord en termes de création d'emploi et en termes de création de richesse. on est un pays ak économie boo xam ne un tissu économique assez gis nañu jeunes yi demandeurs d'emploi yi bari nañ nous sommes des de football comme ni ma ko waxee démb nous ne sommes pas des passionnés de violence suñu fexoon ba am politique sportive boo xam ne dina téye xale yi ci quartier yi am infrastructure yi lañ mhm. leen occuper ci leneen loo xam ne mhm. ay Sadio Mané ay keneen ak keneen dinañ ci génn te loolu njariñu Sénégal lay doon merci beaucoup merci beaucoup Papa Ma Babou kaddu gu mujj gi voilà Adja di xanaa peut-être di remercier euh, le coach Mamoussa. Cissé wax ne Mamoussa Cissé di wax ne vraiment ça a été plaisir di ko déglu wax ne jàngat ne am na si jàngat bu baaxa baax di ko encore di ko féliciter di wax ne lii si kanam mooy mooy mooy dax incha allah. Mhm. jaajëfal aussi dëgg sunu sunu conseil Papa di jox gars yi incha allah dimanche bi ak l' Grégoire. Euh, Grégoire Samba euh, Ngom merci beaucoup euh, Grégoire qu'on va retrouver incha dimanche prochain et puis dinañ largement sur le combat qui a opposé c'était cet après-midi Reug à Sa Thiès et puis on espère que incha allah dimanche boobu aussi dinañu célébrer beneen trophée parce que keroog gis chef de l'État mu teg trois bu coupe d'Afrique senior bu coupe d'Afrique beach soccer ak bu CHAN bi cette fois-ci on espère que dinañ ci teg euh, beneen quatrième mu nekk euh, la Coupe d'Afrique euh, mu concerné ñi nga xamante ne moom mooy la sélection junior bonne chance on leur souhaite bonne chance yàlla nañu am dam demain ci kanamu Tunisie donc merci beaucoup Penda pour la réalisation merci beaucoup Pape Diouf ci wàllu son bi grand merci à Ibou Kouyaté merci beaucoup à toute la rédaction de la 7TV on vous donne donc rendez-vous dimanche inchallah même heure même chaîne toujours avec ngeen jëf